bonsoir amis téléspectateurs yu Walf TV comme ni ngeen ko xamee chaque yi dañuy teew fii ci seen plateau bu Walf Sport comme ni ngeen ko xamee rek chaque lundi dañuy waxtaani sport waaye tey jii dañuy jël bu particulier ndax ku ne xam na ne football kenn demul mu des moo tax ni ki tey jii moom la ñu fas yéene waxtaane waaye itam comme ni ñu koy defee rek saa su ne ci ay invité waaye itam ci ay chroniqueur lu ñu def rek lu dul dalal ñi nga xam ne ñoom la ñu fas yéene sëkkal plateau bi ni ki tey Pape Fall maa ngi lay nuyu di ci plateau Walf Sport maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen fay di leen jox seen wàccuwaay di leen nuyu Coro di nuyu Cheikh Tidiane di nuyu Lamine. di nuyu téléspectateur Walf ëpp Walf TV yëpp maa ngi leen di ziar bu baax. ñooy la fay bu baax. merci beaucoup waaw ci kanam tuuti rek xam naa keneen kii toog ci boobu la chaise di doon coach Tafa Seck comme ni ngeen ko xamee moom daf ñuy gunge saa su ne rek ci Walf Sport ndax kaan bi gis ngeen ñu àndoon ci ak moom ci li mu gën a yaatoo ci ay yeneen ay consultation ak yeneen coach maa ngi leen nuyu di la dara ci plateau ginnaaw Bafou Samb ak Yaoundé. waaw léegi Dakar la. léegi dakaar la waaw. <laughs> macha allah téléspectateurs yi namoon nañ la lool. léegi Dakar la. léegi ñëw nañ ñibbisi nañ ci jàmm ak salaam. waaw voilà di <laughs> nuyu euh, ñaari pape yi Pape Lamine ak Pape Fall. Pape Fall dégg nga am mbégte bokk ak ñoom plateau Pape Lamine ñoo nekkoon fële. Euh, ca euh, Coupe d'Afrique ba. Mhm. Euh, dégg nga. def fa liggéey bu mucc ah voilà heureusement. Mhm. waaw parce que on est champion d'Afrique hein. Ah, ah vraiment waaw il faut ngeen xam ne on est champion d'Afrique. <laughs> waaw loolu am na. kon nag mu ngi noonu. Mhm. di fas yéene rek maanaam. dugg ci mbir mi mm-hmm. euh, lépp lu ñu wax rek pour defar la rek. Mm-hmm, mm-hmm. voilà surtout Pape Lamine maa ngi lay nuyu di la dalal ci euh, plateau bu Walf Sport di fàttali aussi téléspectateurs yi que yow yaa ngi fii ci biir kër gi ci Walf Quotidien macha allah di def liggéey bu mucc ayib comme ni ko coach waxee rek ngeen nekkoon ca Cameroun ma bàyyi nga nuyoo. waaw euh, Thioro maa ngi lay fay également di la di leen remercier ci invitation bi c'est vrai que sama kër la. di nuyu également coach Pape di nuyu Cheikh Tidiane. di nuyu tous les téléspectateurs de Walf TV Mhm. ñu ngi lay fay bu baax a baax comme ni ngeen ko xamee dañuy daal di dugg ci waxtaan bi waaye tey kenn du wax te euh, débuté ñëw li nga xam ne moom moo di euh, football ak wàll wi nga xam ne nii mooy Coupe d'Afrique bi nga xam ne Sénégal da koo jël muy ndam lu yaatu lu rëy ci xolu sénégalais yi waaye bala ñuy sori dañu daal di dem jëli benn ci sunu gaynde yi nga xam ne nii ñoom ñoo ñu indil titre boobee mu nekk lu neex ci sunu biir xol dañuy dem ba Turquie daal di jëli kii di Famara Diédhiou ngir sëkk ak moo waxtaan bu yaatu ci biir plateau bi ñu ngi lay nuyu faamara Famara jeeju ñu ngi lay nuyu dafa mel ni déggante bi jàppandeegul Famara ñu ngi lay nuyu allo faamara oui Famara allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam gaynde salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp. Ah, ñu ngi lay fay bu baax macha allah di la féliciter encore une fois. waaw ba ba yéen a ngi si jàmm nag. di di di nuyu waa plateau bi yëpp. di euh, di rafetlu invitation bi surtout donc di nuyu di nuyu waa plateau bi yëpp. donc euh, di di leen jaar daal di rafetlu euh, di rafetlu invitation bi. Mhm. macha allah comme ni ñu ko waxee rek sargal bi moom duñu ko sax yemale fii mën naa ne dañ leen di sargal. ba sargar bi rek fu mu yem ndax li ngeen ñu indil macha allah dafa nekk lu fort ci ñun mais dañuy sëkk ak yow waxtaan bi comme ni ñu ko waxee rek ci njëlbeen gi faamara bi nga nekkee ci biir kaan bi gis nañu que li nga xam ne ni moom mooy match de poule yeeg yu ni mel da nga nekkoon ci banc bi bi nga nekkee ci banc bi mhm. loolu lan la la mhm. def euh, defuma dara parce que tey euh, coach bi daanaka 28 jours la woon donc euh, amoon na ay ay problème yu yu bëri amoon na ay joueurs yoo xam ne amoon na cas de ay joueurs yoo xam ne dañoo amoon dañoo amoon Covid bi donc euh, boo xoolee premier match bi euh, quatorze jours suma juumu ñoo nekkoon ci banc bi donc man bokkuma woon c'est vrai que deuxième match maa ngi woon tamit ci ci banc bi même troisième match bi may defuma dara parce que voilà coach bi dafa def dafa def groupe am donc vingt huit donc ñëpp war a jouer ñëpp war a bokk Euh, li si li ëpp solo daal mooy nanga nanga na nga pare buñ la buñ la joxe sa chance parce que bon tournoi bi gudd na et euh, et voilà ñun daal pare woon nañ pare pare pare pare woon nañ pour lépp. macha allah après bi ñu lan la la loolu def bi nga demee nag ba dugg ci biir terrain bi pour war a la le maillot. gis nga tey moom Sénégal moom. Sénégal moo soxal moo moo euh, joueur yëpp joueur yëpp Sénégal moo leen soxal donc tey boo duggee si bi moom da ngay euh, bu bu deeree joxe sa bakkan da ngay joxe sa bakkan donc euh, ñun suñu suñu suñu mbébét xamoon nañ ko depuis le début donc mooy mooy jël bi metti woon na trop surtout premier match yi dégg nañ lu ne mais loolu daf ñu gën a dooleel parce que dañoo dañoo xam ne tey Sénégalais dañu ñaax président bi daf ñu daf ñu ñaax Sénégalais ñu ñuy xaar. donc euh, voilà loolu da lay yokk jom rek. Mhm. donc boo xosee dugg si terrain bi moom li nga war a def danga koy def. Mhm. donc euh, yàlla kattan nañu may nañu doole ba jël nañ la allah mais euh, Famara bi nga duggee dugalee but bi bii bu rëy bi nga dugal macha allah boobu koo njëkk xalaat bi nga dugalee but bi koo njëkk a xalaat. c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que tey football pour Sénégal loolu rek dara daax ko boo si tegee nag nga dugal moom wax dëgg fa ne yàlla loolu féete la surtout kan donc euh, mooy li ma la gën a yokk jom da lay gën a dooleel après euh, bon boo ko dugalee vraiment ay souvenirs yu bëri day sa bopp donc da ngay kontaan da ngay bëgg voilà euh, bii bi ma dugal nga feete kook sa sa coéquipier yi parce que boo boo xoolee daal loolu mooy doole bi donc booloo bi mooy doole donc tey manqué woon nañu moo tax bi ma dugalee ma dem euh, voilà ma dem ma dem ma dem gisi gisi gisi gisi gisi gis ñi nekk ci banc bi. Mhm. parce que loolu moo nekkoon force bi donc euh, donc donc donc maa ngi sant maa ngi sant yàlla bu baax yàlla def na ne joué naa joué naa kan bi dugal naa si bi donc euh, voilà mun naa mun naa kontaan sama bopp. macha léegi dama lay bàyyi ak waa plateau bi ñu sëkk ak yow quelques questions aussi Cheikh Ahmed Tidiane Gomis. Mhm. Fama ça va na nga def. salaamaaleykum Cheikh maa ngi lay ziar noo de yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax alhamdulilah yoo nag. waaw waaw waaw man tam maa ngi ci jàmm ak salaam euh, faamara euh, trois uh-huh. matchs bi ngeen joué trois matchs yi dégg nga. Euh, mm-hmm. noo leen mm-hmm. gisee léegi yéen bi ngeen toogee ba ci trois matchs yooyu ngeen joué dégg nga mooy premier tour bi daal dégg nga bien vrai que équipe bi nekkoon na mm-hmm. premier. mais lan moo nekkoon yéen seen sentiment lan moo nekkoon état d'esprit wu groupe bi ci moment boobu avant ngeen di aborder deuxième tour bi. non état d'esprit bi moom mooy li ma wax rek depuis le début nañ lan lañ bëgg donc bi na trop métti na parce yi métti na vraiment vraiment métti na euh, buñ la ko waxul tey doo ko doo ko xam euh, fi ñu doon entraîner des fois dafa il pour dem entraîner donc euh, déjà ci ñu pour nga problème la. terrain bi demewul noonu voilà congelé à 14 heures cas euh, de Covid yi bëri woon na donc le groupe n'était pas au complet am na ñoo xam ni dañoo ñëw rek deux deux jours ñu football donc loolu yëpp dafa bëri woon quoi dafa bëri woon ay facteurs yu bëri yoo xam ne tey jii mënoo ñëw rek wan sa bopp donc euh, il fallait que ñu booloo doon benn xam nga ñëpp ñëpp ñëpp tiré ci ci ci même sens bi loolu moo tax ñu abordé euh, match de poule yi te météo topp mais yàlla def Euh, voilà dañ koy parce que waxoon nañ depuis tey boobu sant ñu gën a gagné en oxygène moo tax euh, bi ñu wàccee Yaoundé euh, fin de boo boo boo leen seetloo fin de match yëpp on finit bien parce que on bien. waaw mais ci ban moment nga ngeen gëm ne que le Euh, et euh, que titre bi dañ koy jël ci ban moment ngeen gëm que titre bi voilà ça y non yàlla xam na ne ñun depuis le début bi ñu fiy jóge ñun xamoon nañ ne dañuy jël titre bi mais le problème en est que euh, fallait voilà du loo xam ne da ngay ñëw nii rek dem mais ñun xamoon nañ on était persuadé qu'on peut voilà mënoon nañ dem ba ba ba ba coupe bi ak lépp lu mënti xewaan ah, ak lépp lu mun ti xew donc. Euh, gars yi nañ joxe waa 100 pour cent que mu soit entraînement que mu nekk hôtel ñëpp dañ doon voilà boo leen xoolee match yëpp amul benn bu ñu gagné ba juillet parce que ñun xamoon nañ leen ñu bët donc bi ñu qualifié final sax jubilé wuñu benn photo rek lañ def benn photo kenn bëggul woon kenn bëggul woon dara parce que bon mos nañ joué final joué waat final donc bii nii dañoo ñëwoon boo leen xoolee amul benn match boo xam ne jubilé lañ mais bi yàlla defee nag ba ñu jël ndam li ah mm-hmm. dañoo kontaan rek lu ñu lu ñu def rek gars yi xam ne <laughs> voilà bu ñu ko jàppee Pape Lamine Pape Lamine ak yeneen euh, consultant yi comme ça ñu sekk ak yow waxtaan Pape Lamine. oui Famara comment vas-tu bro. ça va alhamdulilah maa ngi lay ziar. oui fii la paye sinon ça se passe bien. ça va alhamdulilah ça va. oui félicitations pour le titre de champion d'Afrique. merci merci félicitations. sinon moi j'ai j'ai une question particulière. Mais j'ai remarqué uh -huh, avec uh -huh. Famara, quand il est titulaire, il marque toujours un but parce que sur, sur, sur mes, sur mes sur les aujourd'hui vous êtes à, à 11 titularisations, c'est 10 buts. Le seul match où uh -huh. tu, es, tu, es, titulaire et tu n'as pas marqué, c'était le match amical contre le Maroc, Bougnou Maroc du 2-3-1 à Casa. Et contre, uh-huh, la, uh-huh. contre le Cap-Vert, même si tu n'as pas marqué, tu as effectué une passe décisive. Bon, la question c'est de savoir, est-ce que Famara, quand il est titulaire, il est beaucoup plus efficace quand il est remplaçant parce qu'il n'a pas le temps de se mettre en place pour marquer Non, mais après, euh, euh c'est pour... Vous euh, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou le wala temps ou le jeu titulaire, il faut à parce que... mais c' est vrai que tey peut être boo fubalee tu as beaucoup plus de temps comme des fois mun nga dugg deuxième mi-temps tamit nga nga nga décisif donc euh, parce que joueurs yi bëri nañ bëri nañ bëri nañ ci monde bi bëri nañ donc tey boo amee chance su euh, ñu ñu ñu may la nga football donc da ngay da ngay tu te donnes à 100 pour cent et voilà nga bañ a nga bañ a baisser les parce que bon ñun ñoo ñun ñëpp euh, victoire du Sénégal moo ñu ñor donc man que je sois titulaire ou remplaçant. man j'essaie de me donner à 100 pour cent pour pour pour l'équipe parce que loolu rek moo ma soxal quoi. Mhm. dañ lay bàyyi ak Pape Fall moom tam ancien international la comme yéen Pape. Mhm. Euh, bonsoir Famara. waaw coach Pape ça va noo def. comment tu vas. ça va ça va alhamdulilah. bon je le félicité bu baax par rapport ak sacre bi continental bi. merci merci ah ñu ngi félicité bu baax. man j'ai pas j'ai pas de question surtout à poser c'est surtout pour te. féliciter beaucoup plus par rapport, à, par rapport à ton comportement et à ton attitude. Parce qu'à chaque fois, tu fais ton match, tu marques des buts. Mais aussi à chaque fois pour la cohésion du groupe, pour ne pas que moi, mes problèmes du groupe. À chaque fois que tu es sur le mm-hmm. banc aussi, tu n'es pas la personne à vouloir à, euh, à amener des histoires ou que ce soit par rapport au mm -hmm. groupe. D'où l'importance de la cohésion du groupe. donc dans ce domaine-là ah, ah. bon ñoo ngi la ciy euh, man maa ngi la ciy félicité bu baax a baax a baax a baax c'est surtout merci, du côté du comportement merci. et du côté de l'attitude que tu as à chaque fois que tu rentres sur un terrain tu montres ce que tu sais faire tu de marquer des bon yow li la intéressé <laughs> beaucoup plus c'est l'équipe c'est pas c'est pas l'individuel c'est beaucoup plus l'équipe et là je te félicite énormément par rapport à ça est, encouragé a continuer comme ça, Famara. OK Merci, merci, merci, merci, merci, merci, c'est gentil, c'est gentil. Parce que tey mooy moy moy li mo wax rek yow kesse mo dem. Peut-être yow kesse mën nga dem mais do sori. Donc tay ji ñepp bu ñu manko comme slogan bu bu li manko wuti ndam li. Donc tey bu ñu manké woo dañu wuti ndam li. Donc tay bu ñu la wé équipe nationale rek déjà loolu fierté la. Donc euh, bo bo ñëwé ak lo mënti ak lo mënti am mëno jël sa compte personnel bu gagner terrain bi. seen le collectif. donc tey Sénégal bu bu ñu amee nam ñëpp am nam mooy mooy bi ñu gisee ne tey bi ñu amee nam ñëpp a génn ñëpp a kontaan xol yi doon benn ñi doon ñi ñi ñi ñi doon xuloo ñi mer ñi toog yàgg waxuñoo ko ñëpp doon benn instant Sénégal euh, xel yëpp a parce que xol yëpp doolo booloo doon benn gis nañ fi suñu papa yi suñu yaay yi ñii di fecc ñii di saraxee ñii di ñaan xam di profité waale pour pour pour gërëmaale population bi yëpp ñu génnee nu ñu teesoo xam di di di di kontaan di di di félicité gars di wax ne voilà on est champion loolu lañ doon ñaan te sant yàlla daal sant yàlla bu wér. alhamdulilah mais Famara bala ngay dem bëgg nañu laa laaj lan moo nekkoon discours. Mhm. Aliou Cissé pour gën leen a motiver lan moo nekkoon discours am à chaque fois. Euh, daf ñu doon galvaniser rek à chaque fois mun a def comme d'habitude en plus c'est c'est c'est c'est un coach à vraiment boo xam ne dañ ko war a sargal parce que aujourd'hui dégg na ne. dégg lu ne gis lu ne dafa moom dafa toxlu rek voilà xam xam lu mu parce que lii la bëggoon Sénégalais yi lii la bëggoon lii la bëggoon Sénégalais yi dégg lu nekk léegi xëcc et tout dégg lu nekk mais bon lii la bëggoon Sénégalais yi te am nañ ko. bon comme d'habitude ah moom c'est la gagne rien qu'à la gagne donc tey même équipe bi même joueur sax dañu koy wax à chaque fois ñii c'est vrai que ne peut-être sur le papier yéen na dëpp doole mais faut le faut le montrer aussi terrain bi voilà faut se donner à 100% parce que tey euh, voilà faut pas rater faut pas rater cette chance chance bi ñu am nii ak génération bi nii mënuñu ko bañ a loupé donc à chaque fois moo nekkoon discours am bi dañu galvaniser tout le temps dañu teg dans dans les bons sur sur les bons rails puis voilà ñu ñu ngi koy remercier di ko di ko sant bu baax parce que bon lii la bëggoon Sénégal et yàlla defal nañu si defal nañu si ndam juste pour quelques secondes lan moo war a nekk nag li nga xam ne ni tey ji moom mooy seen jëmukaay lan moo nekk seen xel ak seen kanam. li ne suñu kanam xam nañ ko mois de mars bi jege na ba donc euh, voilà instant yii dellu suñu club pour se pour se préparer pour euh, pour euh, voilà qualification coupe du monde ce sera une revanche pour pour l'Égypte mais après voilà ñun suñu objectif tamit xam nañ ko donc xanaa di ñaan yàlla ñu jiixaat ko rek. macha allah faamara xanaa di la jaajëfal rek di la wax ni bon vent incha allah rabbi titre bi gën laa jik ba club nga gën a briller incha allah rabbi di profité waalo di di nuyuwaale ñëpp di nuyu di di di nuyu toute la population sénégalaise voilà di nuyuwaale waa sama koñ waa sacré ak euh, voilà ñëpp ñu ñu ñu ñaanal ñi ñi taxaw ngir Famara mhm. jërëjëf merci beaucoup merci Gaynde jërëjëf merci merci bu ñu dellusee ci plateau bi dañuy rek daal di eggale li nga xam ne moom moo di émission bi comme ni ñu ko xamee Pafal nga bokkoon ci génération bu Caire euh, 86 yow ak ñoom bokkaande malgré euh, nekkoon ngeen génération bu dooree comme ni ñu koy waxee euh, yàlla def mësu leen gañe dara lan la leen tiitre bii def. ah mais euh, li mu def mooy plaisir bu mag a a mag mooy euh, loo xam ne depuis des années des années mm-hmm, mm-hmm. <laughs> ça vient d'arriver c'est tombé sur ces jeunes là mm-hmm. mais ça nous fait énormément de plaisir vraiment li ñu euh, à travers ce qui s'est passé dans de Dakar partout dans le Sénégal mais c'est pas partout dans le Sénégal c'est monde mais le monde a fêté le Sénégal c'est vraiment extraordinaire donc li ñu def mbégte bu rëy rëy rëy je crois que bi ñu toogee dix huit ans xam nga dix neuf ans demuñu Coupe d' ñu ñëw yóbbu ñu ñëw yóbbu sélection boobu ngeen di wax noonu 86 boobu ñoo yóbbuwaat Sénégal euh, Coupe d' Afrique. Mmh, mmh. donc euh, bon porte douverture bi foofu la commencé donc euh, on ne peut que s'en réjouir quoi kontaan ci trop macha allah te ñu xool rek xam ni que yeneen mun na ci topp. voilà bu ñu amee gëm-gëm gi. Mmh. bu ñu amee gëm-gëm gi continuer avec l'union des cœurs comme ni ñu ko waxee. Mhm. ni ñu booloo ñu ni mànkoo xaw ma dem jëli ndam c' est ça. c' est ça il faut que ñu mànkoo waat dem jëli at beneen. incha allah pourquoi pas coupe du monde. incha allah ci kanam ñu gën ko waxtaanee. Pape Lamine yaa ngi digéré nga li nga xam ne moom moo di ndam lii comme ni ñu ko waxee neex-neex bi mu def ci biir xol yi digéré nga ko wala yaa ngi koy savouré ba tey. waaw euh, man euh, digéré gu ma ko ba léegi je revois les images et des fois man damay toog sax. Mhm. Euh, di dugaat ci internet bi di xool la penalty de Sadio Mané. parce que mhm. euh, c'est vrai que moi je suis journaliste j'ai eu la chance de faire plusieurs CAN et je suis toujours rentré bredouille. Mhm. et sama papa ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm chaque fois bu ma dem CAN dama koy ne papa maa ngi dem mi ne ma yaa na ko waa maa ngi demati <laughs> mais malheureusement bii fekk ko fi ah, euh, donc euh, c'est vraiment dommage j'ai ah, vraiment une pensée pour pour lui parce que mm-hmm. c'était un fervent également ah, supporter de l'équipe nationale bëggoon na ko lool donc euh, voilà c'est c'est quelque mm-hmm. chose boo xam ne ça va me marquer parce que tout simplement dans ma carrière de journaliste Mm. j'ai fait le papier de la finale du sacre du Sénégal et ça mm. restera indélébile. Ah, surtout macha allah. Mm-hmm. ba tey même question. Euh, Cheikh Tidiane Gomis yaa ngi digérer actuellement li nga xam ne moom moo di victoire bi wala ba tey yaa ngi koy savourer. xam nga Pape Lamine wax na ko. ça mm-hmm. reste gravé ci say mémoire. Mm-hmm. image yi. day image yi day ñëwaat. xam nga. Euh, commencement début à la fin. image bi day ñëwaat. Euh, naka la équipe bi. Mm-hmm. naka la naka la ñëwee ci final bi. dégg nga surtout. Mm-hmm. man li ma gën a marqué ci final bi moom mooy hymne yi. Mm-hmm. hymne yi bi ñuy def hymne national du Sénégal. mais foofu. Euh, bon foofu nag euh, sama yaram dafa daw. parce que c' est man hymne li may def defe naa ne. man maa ngi demandé est ce que na ko def ñëpp. Mmh. saa yi ñu koy kii mais jour final bi mmh. dama ne non euh, hymne national bi il faut que mu ànd ak li nga xam ne ne moom mooy voilà voilà mmh. résultat c'est l'hymne nationale man moo ma moo ma moo ma moo ma marqué mais quant à la finale euh, maa ngi koy waxaat di koy waxaat j'étais ko xaw ma lan la man xaw ma lu ma animé woon mais j'étais confiant mais ci ni ngay waxee nii coach bu Sénégal day football en tant que euh, sportif waaye tam nga nekk journaliste. Mm-hmm. taskatu xibaar nan nga koy dundee da koy dund en tant que supporter wala da nga koy dund en tant que sa liggéey. xam nga euh, euh, am na loo xam ne xaw ma ndax yeneen journaliste yi dina leen kii waaye man bu mooy bu Sénégal di jouer maanaam supporter laay doon. Mm-hmm. munuma dinaa jéem nag dinaa jéem nekk nekk nekk kii mais xoolu supporter bi noo def mu jóg. dégg nga euh, man dafa am ñaari kaan yoo xam ne euh, dafa génn sama rongoñ ñaari kaan mhm. kee 86 bu ñoom Pape Fall mooy bi ñuy Côte d'Ivoire di éliminer mhm. jour boobu man je me rappelle très bien euh, maa ngi toog mais jour boobu lekkuma mhm. di jooy ak mille 2002 mooy bi ñuy Cameroun di éliminer eh, ci waaw ñaar yooyu saa mhm. yu eh, eh, bon ni ma meloon nit nekkoon ak man xam nañ ne mhm. que euh, vraiment affaire bi affaire bu ma marqué la dégg nga euh, Sénégal équipe nationale Sénégal ni may supporté naa man mhm. faral naa Barça faral naa Milan AC Giamanda dégg nga mais ni équipe nationale bi may def ñooñu équipe yooyu mënuñu ma kaa def dégg nga c'est c'est Euh, sama xol laay joxe parce que man damay tiit. Mm. man équipe nationale buy joué. Mm-hmm. damay de non non avant avant le mat laay commencé. Mm-hmm. avant le match. Mm-hmm. la veille di kii man dam koy dund. c'est loolu moo nekkoon ci kii bi. c'est vrai Pape Lamine même question. journaliste ngay nekk wala supporter. waaw xam nga euh, journaliste euh, fonction la. Mm -hmm. on est journaliste. Mhm. Euh, par ricochet. Mm -hmm. mais on est sénégalais avant tout. Mhm, mhm. parce que euh, c'est vrai que souvent à l'école de journalisme on nous demande d'être équidistant par rapport à nos émotions par rapport à l'information. mais c'est très difficile. c'est pas au Sénégal on est on était à des milliers de kilomètres de notre pays. en plus euh, nga nekk dëkk boo xam ne. tu entends ton hymne national. Hmm. ñu la koy en fait. moi j'ai des frissons. Hmm. Hmm. à chaque fois que j'entends l'hymne national du Sénégal j'ai des frissons. et journaliste bu la ne euh, Sénégal di football. boo yàggee def ay matchs internationaux. Sénégal di football amoo benn ressenti positif positif du moins. par rapport à à l'hymne national je me dis que ah. sa sénégalité de war nañ ko xoolaat <laughs> parce que sénégalais nga avant tout hein le journaliste c'est après c'est juste une casquette une fonction mm, mais on est mm. sénégalais avant tout parce que dañu demoon mm. avec vingt quatre pays ñoom ñëpp ñu leen di tëggal seen national ba ñun suñu hymne national moo mujjee mais kooku mënoo retenir sa bopp c'est impossible c'est pas possible mm-hmm. c'est pas possible vraiment euh, Pape mu nekk nag moment yu yoo xam ne nii maanaam bu ñu duggee ci li nga xam ne moom moo ci tournoi bi gis nañu euh, premier euh, euh, match yi nga xam ne ni Sénégal joué na ko loolu noonu nga ko doon dundee ak ban jàngat nga ci amoon ak yow en tant que joueur lan nga xalaat ne joueur moom la war a am pour dëgëral boppam ci tournoi bi. waaw mais ci match de poule tournoi bi ci match de poule ni mu commencé moi je trouve que c'est c'est normal c'est normal parce que on est allé on est allé dans cette CAN da nga dañu dem ci CAN bi comme ça ni on n'était pas euh, à deux cent pour cent par mm -hmm. rapport à beaucoup de chose mhm. parce que CAN bi CAN bi li ci gën a dugg mhm. ce mooy c'est pas le sportif c'est l'extra sportif gestion extra, extra sportive boobu la ñu la ñu la ñu mënul woon xoole naka lañ koy gérer ça commence par cette pandémie là d'abord d'accord d'accord mhm. il y a cette pandémie là qui qui est en qui est moo nekkoon premier adversaire bi premier adversaire bi. balaa ñu wax leneen. Mm-hmm. après en dehors de ça extra euh, extra bi terrain yi ci lañ bokk climat bi nga xam ne moom moo la waroon def bi Bafoussam ci lañ bokk. Mm-hmm. le manque de match qu'on a n'a pas eu les matchs amicaux qu'on n'a pas eu ici au niveau de Dakar même fii mënoon nañu fi ay matchs amicaux balaa ñuy dem balaa ñuy dem. Mm-hmm. mais on est parti sans matchs amicaux. ça ça compte énormément et puis y a y y a y a ce y côté émotion te côté émotion bi li ko gën a indi mooy les joueurs yi nga xam ni. soi-disant entre guillemets, sont les leaders de l'équipe et qui n'étaient pas présents dans les, dans les, dans, dans les premiers matchs. loolu yëpp facteurs yooyu yëpp dafa booloo ba nga xam ni bon après dans dans dans les matchs bon ça s'est vu après dans les dans dans les matchs mais bon ça ça après derrière on a eu on a su enchaîner quand même. Mm-hmm. on a su enchaîner quand même par des matchs yoo xam ni. bon il y plus de, de le contenu où le contenu était vraiment beaucoup plus intéressant, intéressant. quoi parce qu'on est monté après crescendo crescendo mm -hmm. jusqu'à en finale et remporter cette coupe là mhm. d'accord comme ni mu ni ñu koy waxee rek ci ci match de poule yi gisoon nañ Sénégal ak comme ni ko Pape waxee jafe-jafe yi nga xam ne nii gisoon nañu ko euh, déjà Covid bi mi ngi fa nekkoon seen premier adversaire waaye tam gisoon nañ effectif bi dafa xawoon manqué yéen ñi nekkoon ci biir tanière bi ak sax jege yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon joueur yi ak entraîneur bi lan ngeen gisoon lan ngeen gisoon. tactiquement c'est que man euh, au départ. Mhm. man am na loo xam ne peut-être mënuma ci ànd ak ñu bare waaye sama xalaat lay jox man. Euh, xam nga. Mhm. man je dis. ah. absence yi man loolu du excuse man dans ce ci kii bi nii. ci kan bi yëpp waaw non non trois matières di may wax début bi ak difficulté yi oh, dama ne non doo dégg euh, xam nga début bi ñëpp xam nañu nga début bi c' était pas seulement le Sénégal moo amoon ay absence non c' était toutes les nations ah mais mm-hmm. amoon na ay équipe yoo xam ne sincèrement mais mais mais. mu dem seen premier match dafa dé non mais attends mais géré nañ ko. géré nañ ko amul benn équipe xanaa xanaa euh, kii mais mais euh, euh, quatre-vingt pour cent des équipes mais ñoom dañu amoon problème boobu <clears throat> ñun. Mhm. ce qui c'est bon li xew moom mooy mais non on a ni ñu joué premier kii trois premiers matchs yi am na ci ay séquences yoo xam ne je donne un exemple moom mooy moom mooy match contre Zimbabwe. Zimbabwe non là. la y avait y avait de avait y avait des des jours yoo xam ne. maanaam wanewuñu woon amuñu woon niveau boobu foofu la. Mhm, mhm. sincèrement pour dire la vérité amuñu woon niveau boobu mais eh, eh, aussi sur le plan coaching tamit y a eu des failles yoo xam ne bon c'est que dañ doog a kii mais. Euh, dox parce que amoon na équipe bi day ñëw tegal la benn équation. Mhm. ñu am problème boobu. deuxième <coughs> deuxième match bi. <coughs> contre Guinée. première période boobu. mais kenn xamul lan la. Mhm. xam nga dafa am ay match yoo xam dafa am yoo xam ne euh, euh, euh, man dama toog man dama toog ba sax man ma ne non mais attends mais qu'est-ce qui s'est passé et Aliou Cissé on lui a demandé ça mais lan la lan mooy problème bi. Mhm. dégg nga moom heureusement boobu waxoon na exact lan mooy. non c'est que moom moom bon c'est vrai da daan wax kii remplaçant astafurlah absence yi mais da wax na carrément ne. du ay excuse moom wax na ko wax nee na moom lii du ay excuse conférence waaw il faut que ñu amélioré wu il le disait nag mhm. il faut que ñu amélioré wu mhm. il faut que ñu demaat parce que da ngay gis dans le jeux ça non euh, doxuloon mhm. mais c'est que nag Sénégal Sénégal équipe Sénégal bi ñu gis dëggantaan bi ñu gis dëggantaan ak ñu xam ne kii mooy équipe Sénégal mais doo ko gis ci premier tour bi premier tour xanaa contre Guinée gis nañ ci benn benn benn benn deuxième période boo xam ne deuxième période bu tàng mhm. boo xam ne laa di nga ne voilà voilà l'équipe du Sénégal. d'accord ñu doon xaar boobu lañ commencé indi euh, Pape Lamine mu mel ni jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy wax depuis sànq ba léegi ci début tournoi bi est-ce que du loolu moom moo leen forger ba tax tey ñu indi ndam waaw euh, c'est vrai que critiques yi ça a été un peu dur hein euh, mm -hmm. après les deux premiers matchs contre le Zimbabwe ak contre la Guinée mhm. mais dafa am ay ay ay ay ay ay ay péripéties yoo xam ne moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu yóbbu foofu parce que tout simplement le jeu a été faussé dès que la FIFA a sorti sa circulaire là pour dire que ok maintenant les clubs européens peuvent retenir leur joueur jusqu'au janvier alors que les sélectionneurs nationaux africains, euh, des sélections africaines avaient déjà leur plan programme calé à partir du 26 jusqu'au jusqu'au jusqu'au coup d'envoi le 9. Mhm, mhm. Aujourd'hui FIFA génn ne club européen yi garder leen seen joueurs yi ba le 3 donc euh, la donne est faussée parce que mhm. tey bu sélectionneur national bi waroon euh, commencer sa préparation mise en train yi commencer ko pour asseoir quelque chose jusqu'au trois ñee la doo jël say cadres alors que tout le monde sait que le Sénégal ses cadres c'était les gens qui jouaient en première ligue ñu après l'autre chose mooy euh, on devait avoir un cas de base à Bafoussam qui est à 1500 mètres d'altitude ñu waroon hmm. dem a Kigali voilà. qui, hmm. qui est un pays sur les collines pour mun a oxygéné wu parce que grand bi xam na lu baax lu may wax coach c'est vrai euh, hmm. jouer en altitude mmh. tu perds la respiration tu t'essouffles très vite et voilà pour nga donner à 100 pour cent de tes moyens ça devient difficile quand de base Kigali bi mujjeewul am donc on est parti directement sur Bafoussam en faisant face à une altitude de 1500 mètres ñu programmé ñu ay 14 heures naaj bu tàng jër mhm. ñu nekk altitude di war a football 14 heures mhm. à, côté les cadres ne sont pas là huit ont été laissés ont été laissés à Dakar ñu ñëw ba ba ba ba ba Bafoussam d'autres ont chopé le virus mhm. mais c'est pas une excuse parce que Aliou Cissé euh, à chaque fois qu'on lui tend le micro il parle de groupe interchangeable mais euh, sur ces deux matchs là hormis les facteurs exogènes yu ñu yu ma yu ma yu ma expliqué fii euh, euh, il y a certains remplaçants à certains niveaux on s'est dit mais écoute euh, est-ce que y a pas mieux on n'est pas dit qu'ils sont entre guillemets excusez-moi ils sont nuls mais mm -hmm. on se dit est-ce que y a est-ce pas, pas mieux est-ce que y a pas mieux mm -hmm. parce que tout simplement ils ont été en deçà de ce qu'on attendait pour un joueur qui joue dans cette équipe nationale là qui avait l'effectif la le plus <coughs> cher parmi les vingt quatre sélections qui étaient à la CAN ok l'autre mooy euh, quand on a quand, quand on a vu que cette équipe là contre Malawi euh, les Covidés avec euh, Kalidou Koulibaly qui jouait son son premier match il mm-hmm. était mm-hmm. parce que tout simplement toogoon na quarante cinq jours footballul mi ngi doog a ñëw di football ci altitude à un match boo xam ne c'était très rythmé les mal les, les Malawites sont très vifs vivaces dans le dans leur jeu. Mmh. Kalidou carrément des problèmes de replacement défensif. en 30 minutes on l'a vu tenir ses hanches. Mmh. commencé woon na sonn Nampalis commencé woon na parce que mhm. Covid même boo dul sportif. day jàpp say poumon day jàpp say day jàpp mhm. sa yaram. Mhm. mais quand on a vu que euh, on, on est descendu <coughs> euh, un peu plus bas. de l'altitude c'est-à-dire à Yaoundé on est descendu à mètres euh, on a vu que cette équipe là commençait à monter en puissance ñun loolooy chance au Sénégal parce que ñun on a colmaté les brèches durant les matchs de poule mhm. ba génn si mhm. ñun instant ñuy yegg sur les matchs couperés les matchs c'est-à-dire à phase d'élimination directe c'est mhm. là qu'on a récupéré notre groupe, pendant ce temps nos adversaires avaient déjà utilisé leurs munitions parce qu'ils utilisaient Hmm. ñun ñu ngi doog récupérer ñun suñuy onze yoo xam ne ils viennent avec une certaine fraîcheur gis hmm. bu ñu doon football ba quatre cent minutes hmm. Égypte mooy xoox mais ñun du ñu xoox ñun football nañu de bu dañuy dem sonnuñu benn yoon mais Égypte moom jeexaloon nañ tak tak tak tak tak woon dara ci match bi loolooy suñu mais ci kaw métit yooyu nga xam ne ñu ngi ko doon dund jafe-jafe yooyu yëpp gisoon nañu benn Aliou Cissé bu serein ci li nga xam ne moom moo di ci conférence de presse doon def waaw non non c'est que xam nga <coughs> euh, moom laa doon expliquer souvent saa yi ma koy expliquer mooy que honnêtement pour mhm. dire la vérité man Aliou Cissé bi ma gis deux mille vingt deux dëgg dëgg wuute nag deux mille dix sept mhm. deux mille nañu waxante dëgg ñi fa nekk xam nañu bu baax li may wax parce que mhm. la Aliou Cissé mille dix sept deux mille dix neuf il était sous il était sur la défensive en conférence de presse Euh, euh, maanaam. Euh, bunkériser bunkériser équipe bi. Mhm. nangam amul amuloon benn contact ak ak ak ak kenn il était dafa kiiw tëju woon mais bii dañoo ñëw mais bii sincèrement ouverture bi mu amoon dégg nga mhm. conférence de presse. Mhm. boo ko waxee dalay tontu tontu bu normal. tontu bu normal euh, noonu di wax di di di di expliquer ak kay nit. Euh, dégg nga ce sont des choses yoo xam ne bu buñ ko xeet ci biir compétition. Mm-hmm. am na yoo xam ne gis nga ay euh, gars yi dañ koy naan ay détails la mais. Mm-hmm. affaire yu am solo la ci maanaam ci haut niveau. Mm-hmm. dégg nga moom bi mu ñëwee. boo ko posé question dalay tontu. normal bu fa nekk di benn yoon rek laa ko fa gis mu xaw a jaxasoo xaw a tuuti. moom mooy bi ko euh, journaliste euh, camerounais bi di koy wax. Mhm. te foofu tontu bi sax ñu ñun ñu ñun dañoo kontaan sax ci tontu Aliou Cissé. Mhm. parce que journaliste bi daf koy commencé di koy di koy jéem a di koy dingal. journaliste bi bon euh, dégg nga bon man waxuma sax di kii sama mbokk journaliste mais da ko doon jéem a di kii di naan way équipe Sénégal nangam di. lu tuutal daal waaw Aliou mhm. Cissé rek ne ko. tontu ko ba pare ba saag ne ko je vous donne rendez vous à Yaoundé te boobu mu ngi Bafoussam. macha allah je vous donne rendez vous à. Ah, kii xam nga loolu la foo dire ñi gënoon a critique ci moom mm, mm, mm. journaliste yi nga xam ñoo gënoon a critique day ñëw ba ci yow wax ak yow nuyu la jàll dem yoonam euh, entraînement noonu la et def na loo xam ne mësukaa def mooy venir rencontrer la presse. surtout. c' est affaire boobu affaire boobu euh, sincère ñun bi ñu annoncé ne Aliou Cissé day ñëw ci euh, maanaam hôtelu journaliste yi toog wax ak ñoom. ah là on s'est dit mais. leen bett mais loolu leen. waaw non mais attends sincèrement parce que koo xam ne euh, ñaari kaan defu ko coupe du monde def la bon non da ngay laaj ñu demoon coupe du monde. Mhm. <laughs> pour ñu gis euh, équipe bi sax problème la woon. pour ñu kii yooyu mais léegi na tey jii nag mu ñëw ak benn xar kanam ak beneen ak beneen kii bien vrai que bon euh, léegi gagné na coupe bi mun na delluwaat peut-être parce que man loolu la <laughs> mun na delluwaat. ci nu mu meloon moom mais quant à CAN bi mais ci communication est-ce que yéen ko quant à CAN bi CAN bi moom euh, euh, euh, kii na mais oh, non parce que sincèrement on se dise la vérité ci communication coach est-ce que yéen ko ci doon jàppale non mais non non non mais si non si xoolal man damay jox benn mais xam nga Cheikh xaaral ma xool Cheikh xam nga Cheikh li mu wax li mu wax c'est exactement ça exactement gis nga un sélectionneur à lui seul mm-hmm. il peut pas coupe d'Afrique ak coupe du monde mm-hmm. dafa metti un sélectionneur à toi seul tu peux pas t'attaquer à une compétition comme ça à mmh. toi seul charge mm. bi dafa diis mm. il faut que nga boole ci ñëpp y a les joueurs qui sont à l'intérieur mm-hmm. y a ton staff y y a le côté médical y a le côté presse avec les chefs et autres mm-hmm. loolu yëpp il faut nga il faut nga boole leen ci il faut que chaque membre du groupe que ce soit les joueurs les série que ce soit les joueurs ak ñi membre groupe yëpp ba ci intendant gën a ndaw il faut que chaque membre se sente important mhm. Pape dafa war a am importance am Cheikh am importance am mhm. voilà intendant yi am seen joueurs yi am am seen importance mooy intelligence su sélectionneur wala entraîneur pour mën a yóbbu équipe dans dans un très très haut niveau pour mën a gagner ay compétition yu mel ni CAN mais si tu te bunkerises et que tu restes à côté et que tu te pointes avec les gens là tu perds tout Donc, dans, dans ça, il faut féliciter à lui dans ça. Mhm. parce que ça, s'appelle l'intelligence. Wow. Mhm. a été mhm. intelligent. voilà voilà ah, merci waaw xam nga loolu laa il a été tellement intelligent. si si si si dégg nga ci côté boobu. dégg parce que man am na ci ñoo xam ne man dama doon gis ay yenn journalistes yoo xam ne dañoo critiqué woon ci ñoom mais mais sincèrement amul euh, parce que bu njëkk ba. <clears throat> yow mii di koy critiqué xam nga lu muy def mais du la faale. da lay ignoré bu njëkk ba 2017 parce que. Euh, je me rappelle te en 2017 la may wax ne man tortue ninja laa yow Gomis mën na loo ma dara. Ah. xam nga boobu 2017 la. Ah. mais pourquoi bii. xoolal bii. bii la première personne laajoo ñoom Pape la première personne bu mu njëkk sal saluer. Mhm. Euh, Pona Sey turam sama tur la. wallaay mu ne Cheikh Tidiane Gomis. mon ami Cheikh Tidiane Gomis je t'aime bien na nga xam yooyu moo doon am dans ci ah. ci affaire bi. yaa ngi doon l'humour voilà l'humour xam nga voilà loolu beneen Aliou Cissé la ñu gis. la ñu gis boo xam ne kii. non mais mais il a su que il a su que l'objectif c'était un objectif commun. commun waaw ñun ñëpp ñoo ko bokk affaire bi ñun ñëpp ñoo ko bokkoon. c'est vrai voilà c'est pas parce que Cheikh Tidiane day wax Cheikh Tidiane fi mu doon waxee noonu. mais dafa euh, moment bi nga xam ne fi ngeen toll nii mooy jël kaan bi indi ko. Mhm. moment boobu la doon Cheikh doon séntu. d'accord mais Cheikh doo xam ne tout est rose. or que am na leen lu bleu fële ak wala leen lu vert. d'accord il faut euh, les positions sont antagoniques. il est payé pour coacher pour coacher une sélection nous on est payé pour faire de l'information. exactement exactement position les positions sont antagoniques. c'est vrai c'est vrai po euh, critère critique yu positif la. exactement la nekkoon moo tax tey ji mu jàppale mais euh, fi nga xam ne joueurs yi foofu la ñu tolloon ci ci euh, match de poule yi euh, tolloon nga fa en tant que joueur muy pression boobu naka la joueur di mën a def ba mën a génn ci benn pression boobu. waa mais mais mais Dior gis nga gis nga pression il faut jamais vivre avec la pression la pression elle est inutile dans tout la pression. Mhm. pression pression de les tétaniser. ça te tétanise ça t'amène à la contre-performance. pression doo ko def la pression doit être une euh, pression mais pression positive ah, mhm. passe pas am benn pression boo xam ne ça te tétanise ça te fragile les jambes ba nga xam ne doo a football pression boo ko amee doo mën football mhm. tu joues pas non du tout ça te fra euh, euh, tànk yi day day bàyyeeku mhm. day bàyyeeku complètement donc doo mu doo a jouer doo jouer donc c'est pas possible Donc euh, le mieux, c'est quand tu rentres dans des compétitions comme ça, le mieux c'est d'y rentrer mm -hmm. avec beaucoup plus, de confiance, mm -hmm. avec beaucoup de confiance. Se dire vraiment cette euh, affaire bi, mhm. il faut qu'on aille la chercher. Mhm, mhm, comme li il faut qu'on aille la chercher. te loolu boo leen boo ko gëmee yéen ñëpp en ko cohésion bi gëmee rek là vous pouvez faire quelque chose quelque de bien. mais il faut jamais jamais de la vie jouer avec la pression. la pression ça sert absolument à rien. à tout. surtout waa régie bu fekkente ne rek Cheikhou Kouyaté euh, mi ngi ci mi ngi ci li nga xam ne mu ngi ci ligne bi mën nañu ko mën nañu koo jël waaw su ma rek waaw su ma tee rek ñu def ñu signe comme ça ñu mën ko jël mu bokk ci waxtaan bi Pape hmm. ñu ñëw ci deuxième tour bi ak Sénégal li mu ci duggee ban moment nga sentir que Sénégal nag dugg na ci CAN bi bu ñu ñëwee ci euh, li nga xam ne ni moom ci deuxième tour yi mais après le match de poule le premier match premier match bi nga xam ni euh, jëkk nañ ko def on a joué contre le Cap-Vert c'est ça. Cap-Vert oui. ouais, on a joué contre le Cap-Vert. où dès euh, euh, dès l'entame de match on a vu que y a les joueurs en voulaient et ils sont allés tout de suite chercher cette équipe capverdienne là voilà on a vu une équipe une équipe boo xam ni une équipe. Euh, je crois que rageuse. benn mhm. équipe boo xam ne vraiment ils avaient tu vois qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose. et puis dans dans tout ce qui est technico-tactique au niveau du terrain tu vois qu'il y avait une cohésion du groupe au niveau du terrain au, au, niveau, de, au niveau du terrain, sur la récupération, euh, sur les phases offensives, défensives et tout, qu'il y avait un bon groupe. Et puis, voilà, bon, on avait un joueur aussi d'exception. Bon, un joueur vraiment de classe mondiale, internationale, qui est Sadio Mané. Sadio. Bon, mmh. qui sur le côté gauche, sur, euh, on, on, avait une côté gauche très très fonctionnelle. Mmh. C'était le côté où il y avait Salus 6 et, et Sadio ce couloir gauche-là qui était très très fonctionnel. fonctionnel. Et puis bon, du côté de Bouna aussi, c'était moins fonctionnel que ça parce qu'il y avait un boulet qui n'était pas dans son poste de prédilection, donc sur le côté. Mais quand on a fait rentrer Bambadien, mais on a vu ce, ce que ça a donné. Donc c'est ça qui a, qui a, amené tout ce changement-là. Et puis après, derrière, avec le jeu, mais après, ils ont cru à ça. Et puis comme sur des roulettes. Hein. Mm -hmm. naka ngeen dundee woon deuxième tour yi comme ni ko Pape waxee ci ban match ngeen jàppoon ne tey jii moom Sénégal dugg na ci kaanam dëgg pour mën a indi ndam li. mais je pense que mooy bu ñu deuxième tour yi euh, en fait c' comme la nuit et le jour. Euh, <laughs> match première poule euh, match de poule yi ak euh, phase à élimination direct yi mooy lu ma doon wax sànq rek parce que deuxième tour yi dafa fekk ñu récupérer nos nos nos cadres. Euh, ñu contre Cap mooy lu coach Papa wax. on a vu que je me rappelle très bien euh, boobu noonu def nañu débriefing bi ak yow. Euh, mhm. bu ñu ma laajee dama leen ne. Mhm. il faut pas qu'on laisse les Cap-Verdiens penser. dès l'entame du match il faut monter sur eux. vers le pressing o pour ah qu'ils perdent leur football. Mhm. et on a vu que c'est ce que le Sénégal a fait. durant tous les matchs à élimination directe. le seul match où le Sénégal n'a pas eu la possession c'était contre la Guinée équatoriale. tout simplement mais sinon tous les matchs Sénégal joué on avait la possession. même contre Guinée équatoriale on n'avait pas la possession mais on a marqué un but sur une sur construction d'école de football. Mm-hmm. parce que ça a été neuf passes mais lan moo indi woon manque manquement boobu contre Guinée équatoriale ba amuñu woon. possession non xam nga xam xam nga Guinée équatoriale à un certain moment on leur a laissé le ballon. Mm-hmm. pour pouvoir contrer pour pour pour placer des attaques rapides. parce que euh, on s'est cherché avec les attaques placées comme euh, le grand bi on a cherché à gauche on a cherché à droite on a eu un Nampalys Mendy qui était très bon dans les sorties de balle qui savait créer les décalages mais ça n'a pas fonctionné il fallait changer de stratégie man si du technicien de damay damay ah. <laughs> il fallait changer de stratégie et la stratégie c'est quoi c'était de sauter les lignes à un certain moment on a vu Kalidou Koulibaly ne, Il, il, il, jouait plus sur Bouna, il jouait plus sur Salif, il jouait plus sur Nampalis, mais il cherchait directement Sadio Mané en sortant les lignes. Et ça nous a valu des satisfactions parce qu'on a surpris les les qui étaient en retard dans le regroupement défensif moo tax ñu am trois buts yooyu parce que boo xoolee buts c'était des attaques très rapides. Mm-hmm, mm-hmm. mais xam nga football mën nga indi mën nga indi lenn ñëw fekk leneen. Mm-hmm. il va falloir que très très comme li nga wax nii. tu peux euh, travailler pour essayer de sortir le ballon proprement de derrière. Mm -hmm. sur du jeu court comme ça pour sortir le ballon. mais de temps en temps aussi tu peux alterner les deux. absolument c'est-à-dire sortir le ballon proprement derrière de temps en temps jouer le deuxième ballon. absolument c'est que c'est que Pape di wax nii parce que de temps en temps Kalidou Kalidou il a un bon pied il a les deux pieds Kalidou Koulibaly. Ouais, il joue ouais. gauche pied droit. donc euh, quand il a la balle de temps en temps il voit que euh, c'est comme qu'on a fait contre euh, les Arabes là comment s'appelle cette équipe là encore qu'on a éliminé là contre l'Égypte aussi c'était pareil. Ouais. quand quand quand il y a à chaque fois que Saliou il passe. Mmh. Saliou il part donc avec le pied de Koulibaly Koulibaly il arrivait toujours à trouver Saliou. Ouais. Saliou c'est sur le penalty qu'on a eu c'est ça hein, ouais. sur le penalty de Sadio. long ballon sur euh, sur euh, Saliou premier benn contrôle la dugg surface bi waa jëlaal ko mu daanu. même contre le Cap-Vert sur le but de Bamba Dieng. c' est récupération de Kalidou il saute les lignes c' est Famara Diédhiou qui temporise. voilà Bamba Dieng qui sort. c' est la passe. maintenant dans un match il faut pouvoir alterner les deux là c' est pas c' est pas. toujours jouer je cours je cours je cours. Ouais. parfois de temps en temps aussi tu peux jouer le deuxième ballon. Ouais. aller trouver le jeune qui parlait tout à l'heure Famara pour le retour aller chercher les côtés centrer les trucs comme ça. mais nag mais nag mais nag c'est que man dafa am loo xam ne man man ba léegi euh, foofu laay taxaw. bien vrai qu'on a gagné la CAN. Euh, gagné nañu gagné nañu def nañu lépp mais c'est que ba léegi. am na ay match yu mu ko réussir ay coaching gagnant. mais. y a quelque part des changements yoo xam ne man. Euh, changement au niveau des joueurs. waaw waaw changement dans le match. yoo xam ne doy na woon vraiment gi ma daf may jaaxal. poste par poste mm. waaw euh, kii c'est que am na benn match boo xam ne euh, là ils sont Saliou Ciss pour dugal. Ballo Touré mais j'ai pas compris j'ai voulu conférence de presse laaj nañ ko ko mais joxewul explication bu leer mais match boobu on ne savait pas loolu ban façon changement la il faut que xam nga il faut que. Euh, euh, ñu ngi dem euh, dëgg la on a gagné la CAN. Mhm. mais maanaam du fii la ñu yem. non du fii la ñu yem qu'on se dise la vérité. te bëgguñu fa yem aussi. de équipe bi dans les normes. Mhm. équipe bi war na dem coupe du monde coupe du monde war na fa wane boppam équipe bi war na dem défendre titre à Fan à Abidjan. Mhm. en deux mille vingt donc loolu yëpp yoon yooyu yëpp. Mm-hmm. mais c'est que y a un problème euh, ci Aliou moom mooy ci côté ay changement yoo xam ne nous on ne comprend pas on lui a demandé changement yi muy def yëpp dañ ko koy demandé mais c'est que am na yoo xam ne explication bi euh, du leer beneen affaire boo xam ne tamit euh, vraiment man gis naa que mooy que c'est vrai Nampalis euh, Gana ak kii euh, ak Cheikhou Kouyaté ou bien des fois euh, Pape Gueye mais mais devant devant. xam nga affaire bi doon loon dox normal je lui ai demandé Aliou Cissé nee naa ko ma ne ko mais Aliou ndax yow sa ban moom ma ne ko Aliou ndax yow sa banc amul ko euh, maanaam un un joueur boo xam ne un créateur un boo xam ne passe nangam léegi mu ne ma sax xam naa kan nga bëgg a wax mu euh, foofu sax mu ngi a dugal man <laughs> man wax ma sax mu ne ma yow Cheikh Tidiane Diop xam naa ki nga bëgg a wax Pape euh, Matar Sarr la ma bëgg a wax dégg nga oui euh, je ne veux pas griller le gosse on ne veut pas parce que bu xale la nangam dugg na fii dem na fii nangam mais il nous faut il faut ce genre de jour là man loolu la mooy euh, le entre le milieu ak li nga xam ne moom mooy attaque bi mooy que euh, c'est pas man je ne suis pas d'accord sunu attaquant yi di ñëw di sonn di def benn travail déjà benn dañoo war a marqué deuxièmement nga wax la ñoom ñu ñëw di jël si bal mhm. non ça il faut que mu man bokk ak sama xalaat la. Mhm. il faut que mu jeex ci équipe bi. est-ce que jàppoo ne sànq yaa ngi wax bala Touré ak Saliou Ciss est-ce que jàppoo ne Ballo dafa gën a défensif Saliou moo tax ni mu gën. non non non non non c'est que changement boobu ah peut-être Pape Lamine comprendre changement boobu. Pape ma changement boobu tamit euh, man bu ma gisee mu. alors que c'était contre euh, qui mmh, contre le Cap-Vert. waaw le Cap-Vert ouais, je pense que le Cap-Vert n'était nullement dangereux parce que vraiment ils avaient ils avaient du mal à à à à à, à rejoindre notre dernier tiers man euh, boobu sëpp nañ leen je comprenais pas ce changement franchement mais bon peut-être lui techniquement il a il a il a il a il a sa vision pour le mmh, faire mhm. Cheikh wax na relayeur pour créer le link entre le milieu et, et l'attaque moi je, je parlerai plutôt des nombreux coups de pied parce que Sénégal le Sénégal boo xoolee on marque pas sur des coups de pied arrêtés et loolu euh, maintenant dans le haut niveau c'est une arme pour décanter des matchs fermés or dans cette CAN là en sept matchs on a eu 97 coups, coups de pied arrêtés ci dara mm. on a eu des coups francs parce que corner mmh. coup arrêté la ah oui, corner c'est vrai coup franc coup de arrêté la mais on a eu 97 coups de au cours des matchs dugaluñ ci dara loolu c' est c' est vraiment quelque chose boo xam ne il faut que euh, mu nekk ci euh, pipeline Aliou Cissé pour ses chantiers futurs parce que mm-hmm. dans le haut niveau il faut mm-hmm. savoir également décanter les matchs là euh, s'ils sont par des coups de pied arrêtés parce que on a de grandes tailles on a de bons joueurs de tête Famara mii génn sànq c' mm-hmm. est un excellent joueur de tête il y a un excellent joueur de tête il y a est un excellent joueur de tête Abdou Diallo également est un excellent joueur de tête donc il faut qu'on travaille beaucoup plus parce que man je vois que c'est la c'est l'une des faiblesses également mais ci tiir aussi ñoom ñi war a tirer amuñu tireur attitré c'est parce que ñu ngi doon gis ne entre les les les les corners c'était souvent Bouna Sarr qui était préposé à les frapper euh, les coups francs parfois c'est Gana parfois c'est Bouna mais on n'a pas eu cette réussite là donc il faut que équipe c'est vrai que man xawma kan moy tireur attitré équipe nationale te loolu day am ci club bu nekk day am ci sélection bu nekk dañuy ne yow yow yaay tiré les coups de pied arrêtés les coups francs yow yaa koy tiré loolu ça décharge un peu mhm. euh, le joueur euh, en fait ça le conforte dans sa mission parce que dina ko permettre moom mu koy gën a travailler au-delà même de la sélection nga xam ne préparation d'avant CAN mooy jël deux semaines trois semaines. Mhm. Euh, tous les matchs à élimination là c'est une semaine de préparation. mais mhm. loolu bu bu buñ ko ko defee ci xelam na ko ah Cheikh Tidiane yow yaay préposé au coup franc de l'équipe nationale même si par en club il va faire des entraînements supplémentaires pour mieux affiner ses frappes. Mhm. mais Sénégal amul tireur attitré. te loolu noonu il faut gars yi xalaat si parce que mënuñu am autant de coups de pied arrêtés Sénégal dugalu si. te malheureusement li mu wax fii à Dakar euh, loolu ça ne tient nee na affaire personnelle la. Ah, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse nee na non mais loolu dañ koy travailler à l'entraînement mm-hmm. parce que tireur yi ngay gis yëpp mm-hmm. non mais c'est que euh, c'est ou bien mu xool koo xam ne euh, vraiment c'est un bon tireur ñu dem ñu indi ko euh, indi ko dans l'équipe mm-hmm. c'est ça il faut que c'est que li Pape Lamine di wax loolu gis nga loolu dañ ko wax waxaat ka mooy que Sénégal mënul jouer match mënul jouer te amul au minimum au minimum munul am cinq wala six coups francs yu dangereux munul am non il faut que mu am coups francs yoo xam ne yoo xam ne bu doon ay bu doon ñeneen ñi dañ koy dugal c'est vrai te ci kaan bi gis nga ñoo xam ne mhm. am na ñoo xam ne buñ ko ñoom buñ ko amee dañ koy dugal loolu moo nekkoon seen am te booy xoolaat Égypte loolu la doon jéem seet ak Salah da am na benn moment boo xam day dugg ci bi gars yi nii di ak bal bi pour ñu daaneel ko rek mu jël bal ba xam nga rek euh, kii ko loolu lañ doon wut kon nag ñun tamit il faut que euh, moom mu dem xool koo xam ne c'est un bon tireur. Mm-hmm. Euh, teg ko ci équipe bi parce que forcément li kuy jouer ak Sénégal noo def li ngay njëkkal lijjanti moom mooy tëj bunt yi ba pare. surtout. da tëj ba pare tëj buntu yi ah. léegi bu yooyu pour tëj ko lii moo ko mën a décanté mm. moom mooy ay bal arrêté arrêté waaw bu ñu jógee ci bal arrêté yi sànq yaa ngi doon wax ci suñu côté yi muy côté Saliou Ciss de que Bouna Sarr euh, gis nañu que dox dox bi nga xam ne ni football bi nga xam ne moom la ñu bëggoon moom la ñu gis que moom la ñu wane ci terrain bi ban jàngat ngay def ci suñu côté yi muy gauche comme droite euh, euh, ci côté yi mais ci côté yi mais moom moom moom mooy suñu point fort ya Mm-hmm. le, le point fort suñu point fort yi actuellement c'est sur, sur sur les côtés. Mm-hmm. bon on a on a l'intelligence de Sadio. Mm-hmm. Sadio quand tu joues avec Saliou et, et la plupart du temps il rentre intérieur pour laisser le couloir à Saliou ça c'est très intelligent et puis Sadio il a une capacité boo xam ni à chaque fois bu duggee intérieur du terrain il se met dans les intervalles pour pouvoir mooy passe bi mu def euh, booy bi doon wax léegi euh, comment s'appelle encore euh, le jeune Famara Diédhiou Famara voilà. mooy passe bi mu ko defal mooy bi mu dugal la le but qu'il marqué. Mhm. c'est ça donc il a cette intelligence là. donc euh, euh, match la plupart du temps maintenant les latéraux maintenant ce des joueurs yu ñuy woowee ay joueurs multidimensionnels. Mhm. c'est-à-dire ay joueurs yoo xam ni ils peuvent apporter vraiment am benn volume de jeu boo xam ni volume de jeu mag boo xam daañu mën a apporter. Mhm. dem ak mais le le problème qui se pose c'est que au niveau tactique. il faut pas qu'on s'arrête euh, simplement bu ñu li ñuy woowee les circuits préférentiels. il faut pas qu'on s'arrête le rôle de. de Sadio Saliou euh, sur le côté gauche. sur le côté il faut pas qu'on s'arrête à ça. il va mhm. falloir surtout boo koy am da ngay am ñaar ñett wala ñeent. surtout mhm. yoo xam ne boo jaaree benn bi bu ñu tëjee nga uti beneen. bu ñu tëjee nga uti beneen. Mhm. mais maintenant les gens commencent à comprendre comme une équipe comme l'Égypte qu'on va jouer dans un mois. il va comprendre que maintenant le jeu sénégalais ce qu'ils vont faire maintenant le côté gauche. le côté gauche sur sur et, et d'essayer de faire jouer sur le côté droit de Bouna. Donc il va falloir que sur euh, les euh, échéances yi di ñëw yooyu il va falloir que Aliou il travaille encore beaucoup plus sur nos circuits bu bu ñu fermer fii ñu amaat benn circuit boo xam ne war nañ fa mën a dem. Mm-hmm. mais il faut pas rester tout simplement sur nos circuits ah. mais parce que le coach dans dans ce cas il faut qu'il y ait un dépassement de fonction. exactement. Ouais. exactement exactement ce qu'il a dit li li Pape wax il faut mu am dépassement dépassement de fonction. Mm-hmm. xam nga dëgg il a parfaitement raison. nan nga gisee prestation Abdou Diallo. Abdou Diallo très intéressant bon mm. Abdou Diallo on l'attendait pas on l'attendait bon tout le monde parlait comme quoi voilà il aura du mal avec le football africain les trucs comme ça mais il a été il a été génial il a été très très bon, très, très bon. dans les duels nous on a une défense extra on a une très très bonne défense mm -hmm. le on a une très très bonne défense bon on va essayer de travailler un peu le le circuit parce que on a beau dire mais la régulation li ñuy wax réguler football bi mais mm -hmm. c'est au milieu de terrain c'est au milieu de terrain c'est où c'est là où il y a l'animation du jeu donc ce donc si animation bi foofu il va falloir qu'on essaye de voir vraiment comment travailler ça sur les sorties de balle surtout sur nos sorties de balle proprement ñu xool naka la ñuy liggéey milieu de terrain bi pour tout simplement arriver à ne pas balancer tout le temps jouer les deuxièmes ballons quoi essayer de sortir les ballons passant par le milieu de terrain mais avec les trois milieux récupérateurs qu'on a euh, les trois milieux qu'on a, parce que là, on les appelle les milieux relayeurs, mais ce ne sont pas, ce ne sont pas des euh, relayeurs. Kouyaté, ce n'est pas un relayeur. Uh mhm. -huh. Ghana, ce n'est pas un relayeur. Un ah, Nampalis aussi. Donc, on a trois milieux de terrain qui sont beaucoup plus sur l'aspect défensif, engagement et autres, qu'autre chose. Quoi. Donc, il va falloir qu'on sert un jeu encore beaucoup plus mhm. créatif dans ce domaine-là, qui peut mhm. apporter les dernières passes, mm -hmm. voilà, qui peut jouer dans les intervalles, apporter les dernières passes. Quoi. Ça, il va falloir qu'on en trouve. Bon, j'ai vu que euh, dans la presse qu'on est en train de voir avec Sofiane euh, de Monaco, on est en train de voir avec euh, Camara, de, euh, voilà, des trucs comme ça. Mmh. Peut-être que ce sont des joueurs qui peuvent apporter ça. Mais dans la créativité, il va falloir qu'on y, qu'on y rajoute quelqu'un de plus. waaw mais xam nga xam nga xam nga tamit euh, gis nga man mënumaa comprendre benn affaire mënuloo nekk bon xam nga xam nga tey bon waa il est champion d'Afrique. il a mhm. gagné la coupe. Mhm. mais non mais attends il est là depuis sept ans il est là depuis sept ans il a gagné la CAN. voilà objectif xam nga euh, bu ñu ko assigné woon. loolu parce que yàgg bi mu fi yàgg tam defarul lu bari tam. mais non mais attends c'est ça le problème aujourd'hui qu'on se dise dans amul benn entraîneur bu yàgg comme moom nu mu fa yàggee. looloo tax aussi ñi fi waa ñi fi nekkoon buñ fi yàggoon. Mhm. tamit bu doon euh, temps boobu mayoon nañ leen ko. Mhm. mënoon nañu def résultat comme moom parce que lii rappelez-vous am na fi ay entraîneurs yoo xam ne mais ñu neen temps deux ans ñu dem seen yoon. ñii euh, ku ci benn euh, kii bi sax nga dem sa yoon mais moom il a eu euh, te ak groupe bi il faut gars yi di rappeler groupe bi presque presque presque groupe bi maanaam mën nañu wax. cinquante pour cent pour cent yëpp. daf leen joxoon à Londres 2012. Mm-hmm. dégg nga ñoom la joxoon ba léegi donc nag loolu moo tax man ma doon wax ne ma ne. Mm-hmm. non équipe bi ñor na. man bu ñu ma daan wax bu ma wax damay wax football dama ne équipe bi ñox na équipe bi ñor na 2017 on l'a raté problème de coaching 2019 on l'a raté léegi nag bii nag ñëwoon na tey jii yoon bi leeroon na lu yoon boo xam ne bu macha allah. dem nañu euh, ki nañu mais léegi nag. mais ci histoire football est-ce que loolu du ci njàngat aussi comme ni ñu jógee bu ñu kuñ fi teg deux ans rek jëlee la fi doo indi résultat ñu jëlee la fi. est-ce que ça dépend lii du résultat lii du. non non ça, non non football euh, mondial am na entraîneur yoo xam ne euh, Belmadi deful deux ans mu. Belmadi mu gagné kaat. Mhm. Belmadi. Mhm. deful deux ans mu gagné kaat ah. Mhm. Bruno Metsu bien vrai que gagné wul euh, kii gagné wul coupe d'Afrique bi. mais dem na ba quart de finale coupe mais moom tamit yàggu fi. yàggu fi. Mhm. dégg nga mais mun nga tamit loolu yëpp ça loolu yëpp ça loolu yëpp saa dépend. Mhm. loolu yëpp ça dépend. Mhm. dégg nga nga fi yàgg te doo jël dara. mën nga fi def ñaari at wala ñetti at doo fi fi def comme moom ni mu def set ans mu jël fi dara. dama ne yàgg bi mu fi yàgg dëgg dëgg tey jii ñun suñ euh, équipe bi dëgg la gagné nañu. c'est que c'est ça tey ji li ñu gis mooy la c'est la victoire mm-hmm. mais mais en dehors la victoire dégg nga waxuñu pour tey dañuy wax pour ëllëg d'accord tey jii la CAN mu ngi suñu ginnaaw on l'a gagné maintenant am nañu étoile macha allah mais c'est que aujourd'hui waaw tey jii mm-hmm. y a la coupe du monde mm-hmm. coupe du monde baa ngi nii Non, mais il faut sa, euh, peut toujours faire Dans, dans, dans, la progression de Lucien, hein, c'est vrai qu'il euh, des choses à améliorer. Mais on a senti une, une nette progression dans Parce que Boumigno, en 2017, euh, en quart de finale sans perdre de match. Hein. On mm -hmm. était éliminé sans Éliminé perdre parce qu'on a au tir au but. Mm -hmm. Les tirs au but dans durant le temps réglementaire la ñuy décompté ah défaite bi on a on a été éliminé sans perdre de match mu ñëw 2019 il a appris de ses erreurs en 2017 il est allé jusqu'en finale euh, mu mu mu mu mu mu ñàkk mu ñëwaat 2021 il a appris de ses erreurs il est parti jusqu'en finale il a gagné la coupe et boo xoolee sur les trois CAN que Aliou Cissé a disputé il a disputé 18 matchs. Mm mais l'équipe du Sénégal n'a pris que 6 buts hein. Mm -hmm. 6 en 18 matchs et 24 24 buts marqués. on a mhm. marqué 24 buts en 3 éditions et 6 buts pris. donc ça veut dire que. il ay a résultats moo ko fi bàyyi ay moo ko fi bàyyi même s'il y a toujours des des choses à redire dans son coaching. Mhm. mais on a vu que il a réussi à consolider et à bâtir une ossature. très solide un fondement très solide ah défensivement euh, surtout dans les grandes compétitions euh, coach Pape xam na xam peut-être xam na lu may wax boo bëggee gagner coupe d'Europe wala nga bëgg a gagner coupe du monde wala nga bëgg a gagner il faut commencer par bâtir une défense très il faut pas prendre de but tant tu prends pas de but tu as 90 pour hmm. kon ni ngay waxee nii xel mën na dal waaw ñu ngi wax ne Cheikhou mi ngi ci mi ngi ci ligne bi donc dañuy ñëw ak moom ci waxtaan bi ñu ngi le nuyu Cheikhou salaamaaleykum maa ngi gaynde ñu ngi lay nuyu. l'homme aux deux galons. maa ngi nii de. allah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. mais grand cheikh ziar naa la. delloo naa la ziar. naka coono yi mas coono waay. waaw waaw waaw masa coono champion d'Afrique. merci merci merci beaucoup ba léegi noppi ngeen rek jooy jeex na. ah. <laughs> booy bàyyi tooñ. léegi ñu ngi sant di xaar leneen. <laughs> bon Cheikhou. oui gis nañu ci biir kaan bi patriotisme bi nga wane macha allah parce que nekkoon na loo xam ne sénégalais yi ñu ngi ko doon euh, wax ci yow bu baax a baax que tu as mouillé le ci match yi nga xam ne jot nañu gis nga nga def ko lan moo la doon poussé lan moo la anime non yaakaar naa ni moom euh, pousser moom yomb na parce que boo boo xoolee tey may équipe nationale lañ sol donc boo xam ne may équipe nationale lan mooy valeur rek. Mhm. yaakaar naa ni loolu war na la motiver. parce que équipe nationale mayam sol ko nga dem di football yi nga xam ni carrément mission nga nekk donc ay soldat lañ mhm. donc comme ni nga koy waxee rek suñu kii rek buñ demee ba sol may soldat mu. da ngay dem rek reyante rek la waaw effectivement on ne déshonore pas xam nga affaire yi moom guerre la quoi donc boo demee guerre rek da ngay ñaan yàlla am dam quoi donc lépp luñ fa mën fa lépp luñ fa mën a bàyyi rek dañ ko fi parce que Sénégal moo ko jar te bu ñu gañee ndam li ba gis Sénégal nu mu mel waaw vraiment rëccuwuñu ko quoi. macha allah mais gis nañu ñu la suspendre instant boobu lan nga yëg ak nan la la def ci biir match bi. non instant boobu moom waaw parce que avant match bi rek ñu maa ngi waxtaan ak coach bi maa ngi si doon waxtaan ak euh, gànn ak kaldu aussi. Mhm. léegi ñoom ñu mën a wax kaat lépp loo mun def rek moytul rek moytul parce que en beneen instant coach bi bëggoon sax ma xool match bi. man je voulais jouer man ma bëggoon jouer match bi quoi. Mhm. léegi bu mu ko jëlee moom sincèrement parler sama mën naa la wax euh, j'étais j'étais carrément déçu mais bon comme ni ñu koy waxee rek. parfois moom boo nekkee si biir terrain am na loo xam ne moom doo ko doo ko mën a contrôler quoi. parce que boo xoolee sama premier contact bu may njëkk a def même pas ñëw ma pour euh, pour laal waa ji après il est venu vers moi mu jox ma carton bi xam nga. donc euh, meroon naa am benn sens mooy cinq gànn ak kii ñoo ma ñoo ma téewoon sax ak euh, Sadio sinon rek mënoon naa def benn bêtise boo xam ne xam nga rek mënoon na ma coûter cher. ban discours nga tenir ci sa gars yi ban discours nga tenir instant boobu. waaw euh, discours mooy tëdd mais comme comme d'habitude rek parce que boo xoolee rek discours bépp mooy euh, loo xam ne carrément bu ñu duggee dañuy def fulla def fayda def jom parce que lu gën a important comme nu mu koy waxee chaque jour rek sama gars yi le plus important c' était c' était équipe bi moo amoon solo ak lépp lu ñu mun munti def ba gagné loolu la ñuy def quoi parce que diñu ko doon waxante nee naa le plus important tey Sénégal pour bégloo ñëpp pour ñëpp kontaan mooy dañu amoon benn objectif boo xam ne carrément moo nekkoon coupe bi donc match match par match lañ dem jël et yaakaar naa ni ñëpp dugaloon noonu seen bopp parce que après chaque match dañ dem réunion avant chaque match aussi on le faisait et jour match aussi dañ dem waxtaan nit ñi ba ñëpp xamoon ni carrément benn objectif lañ amoon mais carrément def tout pour jël coupe bi en tant que cadre naka naka ngeen def yéen ñooñu ba dalal ñi nga xam ne ñoom ñoo fa bees ñoom ñu mënoon nekk à l'aise ci biir équipe bi ba tey yii ngeen indi ko. non mooy mooy comme lu ñuy def rek waaw déjà rek cadre yi chaque jour dañuy dañoo am réunion dañ avant ñuy def réunion dañuy waxtaan suñu biir pour mun a carrément ñëw jël ñoo xam ne ñoom ñu ngi seen premier kan la woon boo xoolee ñu bëri seen premier la woon. et aussi il ñu expliquer leen histoire kan wax leen kan bi mooy lan donc bu ñu réunion ak ñoom waxtaan ak ñoom. expliquer leen suñu kan bu ñu demoon euh, Guinée équatoriale bu demoon Gabon bu ñu defoon aussi euh, euh, Égypte comme ça ñu mën a xam bu baax a baax lan moo taxoon ñu échec lan moo taxoon carrément affaire yu fa dam am yu fa dam am lu ñu mën a aussi yokku parce que saabu ñu ñàkkee rek dañuy jéem a xool lan moo taxoon ñu ñàkk saa bu ñàkkee dañuy jéem xool lan moo taxoon ñu ñàkk parce que boo xoolee Euh, génn nañ match de poule après bu ñu jógee match de poule ñu ñëw quart de finale ñu ak bu ñëwee quart de ñu ñëw fin ñu ñëw finale après ñu toog maa ngi fàttaliku il y a deux ans bu ñu ñëwee Sénégal perte finale bi foofu Sénégal bi nga gis ni gars yi bëri génn encouragé ñu loolu noonu nag yaakaar naa ni loolu noonu lu tax ñu jël coupe bi tey dinaa yàlla loolu aussi moo ñu motiver parce que bu ñu ñëwee gis Sénégalais yi génn dañu toog gis gars yi ñu ne sa ñun il faut que ñu def tout tout tout tout pour jël coupe bi ndax bu ñu jël coupe bi moment sincèrement parler c'est du gâchis loolu moo tax gars yi loolu la ma tëddee c'est que gâchis la woon yàq la. parce que Sénégal amul lenn lenn lu ko manqué woon mooy coupe bi comme ni ko waxee rek yàlla mooy may dam yaakaar naa moom yàlla moom bii pas la ko la ko tuddee woon quoi. macha allah ma bàyyi la ak Cheikh Tidiane Gomis. waaw mais euh, Cheikhou euh, man damay damay revenir un peu ci euh, bi jour final bi. Euh, maanaam le jour même le jour dégg nga. Euh, mm-hmm. yow ak euh, gars yi waaw waxtaan bi man loolu laa bëgg waxtaan boobu nga révélé ñu waxtaan bi lan la woon. waaw yaakaar naa ni normalement sax sax bay bayu chaque match dañ doon waxtaan suñu biir après nag bay boobu noonu maa ngi ñëw kuli naan ma maa ngi ñëw kuli woo ma ne ma est-ce duñu waxtaan mu ne ko non ma ne ko ma ne ko final bi vay bi kenn waxtaan ma ko dañuy bàyyi ba vay bi ma ne ko final bi moom lépp loo fi waxtaan nii rek mun nañ ko fanaanoo te mun na am loo xam lu ñuy def seen bopp quoi ma ne dañuy bàyyi ba vay bi parce que lu gën a important moo taxal gars yi xam ko lu ñu wax suñu biir mooy carrément une finaal ça se joue pas mais ça se gagne ak lu mu munti amee ak lu mu munti def ça se gagne parce que comme li ma waxoon sama gars yi nee naa nous on des soldats dee sax dañuy dee bu jaree joxe suñu bakkan sax dañuy joxe suñu bakkan parce que dañuy final gis loo xam ne vidéo yoo xam ne yu doy waar yu yoo xam ne gisoon sénégalais yëpp dee si mbedd loolu nag carrément daw suñu yaram quoi dañu ne carrément lépp lu ñu mun def moom nañ ko def quoi bu neexee yàlla yàlla dinañu may ndam parce que ñun xalaat ñu woon ñibbi Sénégal sans coupe bi parce que gars yi ñu ngi doon wax pression pression mais pression am woon xam la leen bañ yaakaar yaakaar moo fort en plus ñu amoon yaakaar moo moo bëri woon moo taxoon lépp lu ñu mun def rek ba def ko rek def nañ ko moo tax boo xoolee carrément booyee mun naa ne joué nañ lu si bëri sans pression parce que dañoo dañoo lâché wu woon quoi. Mm-hmm. waaw mais Cheikhou gis nañu ci <laughs> yow fu mu nekk ni ci kaan euh, bi sonnoon nga. amoon nga ay ay ay ay télescopage da nga doon xaru comme sa but boobu ngay dugal ah boobu da dem xaru xaru koo ci kii bi <laughs> waaw mais moment boobu laa waaw bi gisee bal bi kii eh, waaw yow da nga ne damay dem ba jeex lu ma ci jëlee muy noonu. Hmm. non mais c'est normal mën naa mën naa ne sax avant man. mun naa ñëw si bosu Sadio bi parce que je pense que bos sagu Sadio bi sax moo gën a moo gën a métti ko sama bos bi mm-hmm. parce que boo xoolee carrément nu nu mu jóg ba pare bu mu bu mu daanoo déjà rek mënoon na génn terrain bi mais instant boobu noonu comme que carrément ñu ngi woon a zéro zéro mu ne si xelam mu toog si xelam ne carrément il faut ma toog si terrain bi pour def tout pour gars yi dugal wala moom mu dugal nga xam ne rek euh, loolu mooy esprit dem ba jeex. parce que loolu noonu la loolu noonu lañ dem xaar tey si mun naa wax tey si si joueurs parce que tey lu ñu gagné tey si si si si euh, mun naa wax lu tax ñu gagné aussi côté mental la parce que maa ngi def gis ñu bëri dañu xas ñu ne waaw sénégalais amuñu mental sénégalais amuñu mental sénégalais mm-hmm. amuñu mental mm-hmm. mais tey yaakaar naa ne mental boobu noonu euh, dañ ko forger parce que parfois am na ay critiques yoo xam ne yu bëri yoo xam ne dañ si jàng daf ñuy jàppale parce que loolu bi nga waxee le plus important mooy tey ñu defar mental bi tey loolu moo tax changement bu mu dugalee génn man aussi contre kii bi bu ma góol mbëkkee mun naa ne carrément bu nekkoon penalty am na mun naa génn mais bu ma toogee carrément après may wax ak coach ne ma carrément penalty amul kii wax changement man ko non non génn ma il faut ma duggaat parce que tey nee naa lépp lu ñu mënoon def tey ba Sénégal am ndam tey diñ koy diñ koy def parce que yaakaar naa ni yàlla xamoon na lu nekk si xol yi yàlla xamoon na ne yéene bu ñu amoon tey pour jël ku d'Afrique bi xam naa loolu moo tax mu ne ñii moom xam naa su ma leen ko joxo lu baax <laughs> yaakaar naa ne moom bu ñu gën woon ko bi moom neexul ba neex du du baax quoi. macha allah ñu bàyyi la ak la fii ci Walfadjri. waaw Cheikh maa ngi lay ziar. dégg ma dégg. waaw maa ngi lay maa maa ngi lay ziar Cheikh. maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax. oui Pape Pape Lamine. eh la. oui Philopé euh, man man moom xam naa damay damay digresser un peu quoi <laughs> waaw par rapport à man man en fait j'ai j'ai fait une remarque avec toi euh, par rapport à ta constance parce que euh, yow tu fais partie des rares qui ont intégré la première ligue pendant huit ans et qui sont toujours titulaires dans tous les clubs où ils sont passés malgré tout ce qu'on dit c'est vrai que Patrick Vieira à un certain moment a essayé de changer un peu son milieu terrain mais après gis na ne doxul dala andiwaat Euh, en équipe nationale également euh, souvent on t'a mis en concurrence avec certains mais tu as toujours su récupérer ton poste de de titulaire mais d'où vous tirez cette énergie là. waaw comme ni ma ko waxee rek déjà fu ma juddoo la fu ma juddoo la fu ma màggee la donc euh, xayaal laa juddoo xayaal gànnaar laa juddoo foofu laa màggee donc ñëpp xam na ne carrément foofu. lépp lu ñuy def rek mooy esprit de de bañkat donc adduna comme nu ma koy waxee pourtant rek maa ngi koy wax euh, barki démb mën ñi nee naa si adduna euh, jàmb jàmbaar amul yàlla dimbale moo fi am donc yàlla mooy mooy dogal yàlla mooy maye yàlla mooy joxe parfois nag yàlla bu la joxee yaa koy teel sa bopp yaa koy xeexal sa bopp parce que yàlla bu la jëlee dara dénk la ko xam ne carrément du yomb donc lépp loo gis lan la si àdduna mooy xeex fighting la parce que ba bés bi ñuy sangoo suuf lépp lépp lépp fighting la ak lu mu munti doon nag ak loo munti nekk xeex la donc dama gëm yàlla wóolu ko même bu nekkee parfois lu mu métti métti métti métti métti métti métti dañuy tee rek parce que loolu mooy àdduna parce que comme ni koy waxee rek lu neex du yomb lu neex du yomb dara du yomb si àdduna tant que suulu ñu la sax laay wax mais lépp lu ñuy dégg lépp lu mu munti nekkee loolu ma gaan di wax mu ne ma lépp lu man comme lépp ngay dégg lépp lu ñuy wax man loolu contrôlé mu la quoi parce que man lu nekk sama ginnaaw dama xool nekk sama kanam laay def tey ma ne man man sama bopp man maay xam dinaa xam def naa wala def ma match ma duma ma toog tey di xaar Cheikh Tidiane mu ne waaye kii def na match wala non non non man sama bopp dinaa xam ne def naa match dinaa xam def ma match dinaa xam erreur bu ma def dinaa xam lan laa su war a yokkaat lépp lu may def tout le temps tout le temps noonu laa koy defee quoi mentalité boobu loolu laa koy defee et sama ñoo xam ñu nekk équipe nationale tout le temps loolu laa ñuy wax aussi nee naa leen carrément adduna moo yomb nee naa leen tout le temps tout le temps tout le temps am ay moments yoo xam ne dina métti trop trop trop trop trop mais mentalement si t'es pas fort moom bu yóbboo carrément nga dem toog parce que dañ nekk pays boo xam ne dafa métti c'est le Sénégal Sénégal dafa métti Sénégal pour nga nekk fa si jàmm il faut nga yor benn mental boo xam ne mental d'acier la nga won affaire yi ginnaaw nga xool tout le temps tout loo xam ne moo nekk sa kanam. parce que maa ngi wax sama boy ne nee naa Coupe d'Afrique bi neex na trop on l'a gagné mais jeex na de instant am na loo xam ne moo nekk suñu kanam. Mm-hmm. moo nekk suñu kanam c'est la qualification de la coupe du monde tey qualification de la du monde moo ngi ñëw tey boo ko gañewul mun naa ne boo qualifié wu tey mun naa ne loolu échec la mm-hmm. donc. pour ne pas gaspiller la il faut ñu préparer bu baax a baax a baax a baax waaja ko bu baax a baax xam ne aussi du yomb parce que Égypte comme lu ma koy wax rek instant yi xolu nañ instant yi mer nañ mais ñun aussi coupe du monde bi il faut ñu dem uh-huh. donc loolu yëpp du ay wax du ay dara liggéey rek la après voilà ñu jéem a xool euh, yàlla lu muy def après quoi parce que lépp lu ñu mun wax lépp lu ñu mun ti def aussi suñu borom moom mooy moom mooy dogal quoi. ancien international ancien international. Caire 86. Caire 86 moom ak ñoom dem si àll ci Bokande ñoom ñoo fa nekkoon grand pape. waaw Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax maa lay ziar. maa lay pay maa lay fay ginnaaw bi. maa bu baax di la féliciter ci tiitre bi. merci merci beaucoup merci bu baax a baax ci titre bi. merci li nga li nga li nga wax nii moo moo nekk ci yow moo waral. coupe d'Afrique bi nga def nii parce que wane nga une euh, certaine euh, une grande détermination beaucoup d'engagement dans cette CAN tu faisais partie des leadership yoo xam ni leadership bi wane nga ko ci terrain bi parce que y a moment donné à la télé on voyait carrément que yow yaa doon harangué vraiment euh, joueurs yi voilà pour ñu dugg ci biir match bi bu fekkee gars yi ñu ngi wàcc yow yaa leen di yéegewaat encore ci kaw. donc tu as montré vraiment une très très grande détermination comme tu l'as dit tout de suite ni ñu ko expliqué c'est dû tout simplement à ton éducation voilà nga éducation boo xam ni nit ki boo comme ni nga ko waxee rek nit ki moom bañkat dafa war a nekk bañkat ba moom ñu dee bañkat boobu nag bon moom nga moom nga yóbbaale moom nga yóbbaale si terrain bi ci terrain yi moo tax fi ni ne nii amul kenn koo xam ni war nañ la euh, war na la mun a war na la mën a wax dara loo xam ni par rapport au drapeau national parce que vraiment tu as défendu haut et fort les couleurs de ce pays sur le terrain waaw li ñu daloon li ñu daloon xaar daal comme leadership yëpp gis nañ ko quoi ñoo ngi la ci ñoo ngi la ciy félicité bu baax a baax a baax a baax di wax rek ngeen continuer bon comme ni nga ko waxee nii déjà yaa ngi déjà xool orison bi déjà si ce qui va venir dans un mois déjà yaa propulsionné déjà si li war a xew dans un mois ça c'est un compétiteur compétiteur mooy def loolu moo naan affaire bi mooy il se contente jamais du jamais du peu da ngay xool li ne ci gannaaw li nekk ci li nekk ci kanam coupe d'Afrique yi passé na am na loo xam ne mi ngi ci kanam li ci kanam la ñuy dem jëli et là tu es en plein waxtaan ak sa yeneen yi nga xam ni ñoom nga bokkal sélection bi xamal leen que ni vraiment pour la qualification de cette coupe du monde c'est aussi important que cette coupe d'Afrique là ah yàlla defal la jàmm foofu nga nekk ci Angleterre ah amin amin beneen question avant ñuy pare ak yow malgré que ci final bi domine ngeen ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Égypte est-ce que amoon ngeen doute ndax bi ngeen dugalulee but bi ngeen dugalulee bi est-ce que amoon ngeen doute malgré da ngeen dominé woon ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Égypte. buñ dug mais buñ dugalee woon but bi. li ngeen dominé te dugalee dugaloo leen but. 120 minutes yi. 120 minutes waaw te fekk na yéen a leen dominé. est-ce que amu leen woon ay. waaw dëgg. non non parce que parce que bu ñu bu ñu defee suñu suñu discours ba pare donc bu ma jëlee discours Sadio bu mu jëlee discours après nu mu dee li jël ak Gana jël après coach bi dafa jël discours bi coach bi bu mu jëlee discours bi nee na carrément bu ñu njëkkee dugal wala ñun ñu njëkk a dugal wala ñu dem wala ñu dem euh, match bi jeex ñu dem prolongation wala ñu dem séet ak lu mu ci doon. carrément parce que lépp lépp on était prêt parce que boo xoolee carrément que ce soit série penalty on l'avait déjà fait lépp loo xam ne carrément ñu parce que ñun côté bu nekk mën naa ne côté bu nekk lañ liggéeyee côté bu nekk après bu ñëwee nag dis dis euh, boobu foofu instant boobu nag dafa passé woon dafa passé woon si booy yi nee na leen carrément ak lu munti am bu ñu nekkee carrément dañu yóbbu ba cent vingt minutes même bu nekkee ñun suñu yéene moo nekkoon ñu gagné parce que ñun carrément on voulait si biir match bi lañ bëggoon pare ak ñoom waaw ñun suñu biir match bi lañ bëggoon carrément pare ak ñoom mais coach bi carrément bu ñëwee ne carrément bu nekkee pare ñu ak ñoom suñu biir match bi bu nekkee carrément dañoo yóbbu série foofu moom il faut il faut ñu pare yaakaar naa ni mentalement côté bu nekk moom sama gars yi moom pare nañu woon foofu quoi même bu nekkee sax buñ demee série instant boobu moom biir yi ñu ngi doon yëngatu xol yi ñu ngi doon yëngatu <laughs> dara desu woon quoi parce que benn instant moom série moom c'est c'est boo xam ne yombul métti na vraiment mentalement il faut nga prêt et je pense que waaw sama sama gars yi instant boobu pare woon nañ bu ñu prêt woon moom beneen affaire la ñuy wax quoi. Hmm. macha allah di la jaajëfal di la bàyyi rek nga noppalu foofu xam naa mi ngi guddi te da ngeen a war a dem ci entraînement yi demain. di nuyu bu baax a baax soxna yi aussi. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup kontaan en tout cas en plus di féliciter waaw Sénégal bi yëpp encore di leen féliciter yéen ñëpp parce que yaakaar naa ne moom ñëpp ay champion d'Afrique leen. waaw di leen wax aussi yàlla nañu jig yàlla nañu jig yàlla nañu jig parce que loolu moo si ëpp solo quoi nit ki moom lépp looy ñaane da ngay ñaan yàlla mu jig la te maa ngi ñaanal Sénégal bi yëpp yàlla nañu coupe bi jig incha allah to xam nga rek min di yeneen wërsëg waaw bu neexee yàlla si barke Mohamed incha allah rabbi bon vent Cheikhou merci beaucoup et au revoir. ciao ciao. <laughs> merci beaucoup. merci beaucoup jërëjëf. Pape Lamine ñu ñëw nag ci final bi daj dëpp gi comme ni ñu koy waxee li tax tey jii Sénégal ñu ñu ñu ñu sant bu baax a baax di ñaan mu yokk bu baax a baax final bi en tant que journaliste eh, wax nañu yëg-yëg beeg ni mu demee mais naka ngeen gisee woon équipe bi exactement en tant que journaliste naka ngeen gisee woon tam kii di coach Aliou Cissé waaw man xam nga euh, c'est vrai que amoon nañu ay jeexi jaaxa mooy match de match de poule yi. Mhm. mais man final bi wax dëgg mhm. yàlla de sama sama akulaay taala laay wax. Mhm. man euh, je suis pas du tout angoissé. parce que oui parce que tout simplement. Euh, dama ko teg ci benn facteur. dama ne l'Égypte peut nous battre sur un fait de jeu. Mais l'Égypte ne pourra pas résister face à la puissance du Sénégal parce que l'Égypte venait de disputer trois prolongations. c'est vrai 320 minutes la joué. Mhm. même bu dugalee Sénégal ak puissance am ak euh, la force de frappe qu'on a devant Ismaïla Sarr Sadio Mané Famara Diédhiou Salou Ciss qui déboule sur les couloirs euh, Bouna Sarr qui avalait les couloirs également je me suis dit que euh, Égypte avant la fin des 90 minutes l'Égypte bu dugalee elle craquer man j'ai mhm. jamais douté Euh, euh, sur sur sur cette finale là mais man euh, en fait la surprise que j'ai dans cette finale c'est que le fait qu'on est allé jusqu'au tir au but moi dans ma tête je me disais que le Sénégal allait résumer ce match durant le temps réglementaire donc quand on est allé au tir au but là c'était la surprise je me suis dit ok on est allé au tir au maintenant ça reste parce que joueurs yi Sénégal souvent mooy lu Cheikhou doon wax léegi mhm. on nous taxe souvent d'un mental faible, faible. très mhm. faible mhm. parce que dafa am ay scénario yu bëri yoo xam ne euh, dañ ci ñàkk ci tiro but mhm. en 2002 ça revenait toujours chaque fois quand on a un penalty on le rate déjà dans le match de la finale Sadio Mané a raté un penalty euh, moom sax durant la séance des tirs au but il tenait pas il n'était pas dans dans le groupe il était derrière il, était derrière. il faisait les 100 pas il y a Abdou Diallo du groupe bu mu dugalee penalty lam si loo ko dem xëcc andiwaat ko ci biir groupe bi pour ne ko am xaw ma la la ko wax mais xam naa sûrement da ko ne non ne fais pas ça soit avec le groupe mais Sadio il n'était pas là-bas parce qu'il était tellement ouais, ouais, sous pression il n'était pas là-bas mais man j'avais j'avais j'avais j'avais cette foi-là j'avais je sais pas je sais pas je sais pas parce que même man sama papier avant avant avant avant finale bi papier présentation bi j'ai j'avais di que le Sénégal a toujours posé une main sur la coupe mais ne l'a jamais soulevée avec les deux mains mhm. cette fois-ci ça sera la bonne macha allah. j'avais cette confiance la je sais pas pourquoi. Uh-huh. vraiment je sais pas pourquoi il est il était également. dans la même dynamique Gomis man xaw ma da doon listaxaar match bi xaw ma mais jàqul benn yoon tiro <laughs> bi sax Gomis jàqul ñun ñëpp ngi ah. tiit mais moom il était tellement froid euh, très confiant mu ngi ko doon wax pas moom di ko ne non dañuy tiit non non dañuy gagné ko mais man bu ñu ñëwee ba tiro bi ok c'est là où le stress a un peu monté mais uh-huh. à mon à mon avis parce que La mhm. génération avait mûri. Mhm. Même si y avait 16 joueurs qui découvraient la CAN, mhm. mais le socle, ils avaient déjà mûri. C'est vrai. est-ce que du li ñu souffrir pendant des années souffrir ko ci biir match bi nga xam ne ni moom mooy Égypte contre Sénégal ñu gagné coupe bi est-ce que souffrance boobu moo waral tey jii ñu yëkkati ndam li waaw mais xam nga xam nga xam nga euh, man damay wax ne rek que euh, Sénégal dafa mérité CAN bi ci bu wér da ko mérité fi ñu jóge la. Mhm. bu leen fàtte ne que ñu ñii mais ñun ñii ñun ñun ñun pays yëpp ñu ñoo leen jàngal football ñun ñoo leen wan nu ñuy organiser football mais ñu koy dem xoolal génération yi fi ñëw. Mhm. dangay ngay commencé asmara. nga wàcc xoolal ñu xoolal asmara lan la affaire de calcul xaw ma arbitre bi organisateur ñoom ñoo calculé de ñoo tax ñoo tax coupe d'Afrique boobu jël ñu ko de. mooy bu asmara ba. asmara d'accord boobu. ñun ñoo non dañoo ñëw parce que tu yi ñoo organisé gars yi sàcc ñu dañ ñoo sàcc. K 86. loolu la ñu yàlla fay mooy li ma lay posé ñu toog ba si yàgg. Mhm. K ak ñoom Pape Fall. mais non mais attends bi ñu dóoree Égypte dañ ñëw non c' est fini coupe bi non non non jeex na ñoo ko moom. <laughs> qu' est ce qui s' est mhm. kenn xamul. ah ñu ñëw. Algérie. Algérie xoolal Algérie. demi finale demi finale contre Algérie. nga malmené ko. Ah nga sonal ko mais xoolal loolu foofu ñu jaar. Mhm. nga ñëw foofu même sax en deux mille. gars yi dañuy wax deux mille deux mais en deux mille équipe bi demoon deux mille fële. waa Nigéria mais non mais téye. Mhm. mais téye mais non téye waa Nigéria xaw leen dajji. Mhm. mooy ñoom moom mooy début ay euh, début ñoom Fadiga. ñu ñëw deux mille deux deux mille deux mais non mais c'est extraordinaire mais yooyu yëpp boo koy xoolaat fi ñu jaar. non sincèrement souffrance boobu sincèrement dëgg-dëgg man loolu fois boobu laa amoon dama ne non yàlla nag non non non nag yàlla nag day ñëw fii nag moom yàlla nag yàlla mu ngi doon séddale léegi nag ñun la war a séddale. Mhm. daf ñu war a séddale. ñu war a jox léegi nag man c'est ça mais lépp tamit maa ngi ko teg ci yoonu football. Uh-huh. groupe bi bi ma lay wax bi ma ñëw ba fii nii. Mhm. man bi may ñëw kaan ba man j'étais confiant bien vrai que j'ai tout dit j'ai tout dit. Mm. man euh, euh, lépp wax naa ko. mais waxoon nga moom vraiment. waaw mais mais c'est dama ne dama ne. Euh, kii xooluma xam nga xam nga du xool. Mm. même sax Pape lamin ko kii naa ko d'accord ak moom. rek non non koy man mais Sénégal kenn du amul sénégalais bu yéene Sénégal. bañ a jël dara mm-hmm. amul. Mm-hmm. je le dis encore une fois. Mm-hmm. dégg nga loolu moo tax rek ñu on était ñu noonu di dem. dégg nga naan bon mais ale na leen dem euh, kii te gis nga danaa la wax benn affaire de ci football da laaj ñëpp gis nga kuy jël champion kuy jël titre de champion na nga xool parcours am day am ay match yoo xam ne chance lay doon. ay match de chance. Mhm. ay match de chance. gis nga contre Zimbabwe avant que ñuy am penalty boobu fan la action bi jógee action boobu xoolal benn bal de but la bu waa Zimbabwe. raté ko ren ñu am loolu. nga am compte mhm. waa am compte bi ñu ñëw ñu kii noonu. loolu moom mooy euh, vraiment li nga kii. dama ciy teg leen na rek sànq kii Cheikh Kouyaté daf ko wax. gis nga joueurs yi man gis nga man. Mhm. kaan bi ah. Mhm. man joueurs yi euh, li ñu leen doon xas ñoom ñëpp leen di wax ne. que yéen ñi ak comme xam nga wax ne ko amuleen mental da ngeen nangam yéen joueurs yi yéen a wax a jéngu bii nag ñoom ñëw jéngu. ñoo jéngu bii dañoo jéngu. kon xam ne xam nga mu ngi confirmé man li ma wax. Mhm. que ñoom dañoo toog réunir cadre yi dañoo toog ñu ne eh. Mhm. li xew Sénégal nañ leen gars yi. nañ leen yóbbul gàcce daal nañ leen yóbbul ndam Pape est-ce que du 2019 aussi ak ni ko dundee waxuma sax yeneen kaan mais man li ma fekk ci 2019 est que ni ko dundee taxul yokk ñu loo xam ne nii tey ji moom moo tax ñu gañe bu ren bi. waaw mais ci la bokk ci la bokk. ci la bokk l' approche de 2019 parce que gars yi gis nañu que engouement bi amoon accueil bi amoon te gagné wuñu. Mm-hmm. bon li gamins ils se sont dit que maintenant cette fois-ci il va falloir que ça soit la bonne que ce soit la bonne mais mais vraiment c' est boo xam ni que vraiment booy euh, euh, mérité nañu quand même. Mm-hmm. mérité nañu cette CAN là ils ont mm-hmm. mérité cette CAN là. parce que mine de rien bon yéeg nañu crescendo pendant les matchs de poule yéeg yéeg yéeg yéeg ba agsi ba agsi après ci sommet bi mais on savait en que nu mu métti métti métti métti que l'équipe sénégalaise là allait parce que vraiment parce que sur le terrain déjà comme les Pape wax mhm. pendant les 90 minutes les 120 minutes vraiment les, les autres là ils étaient sous le rotule très très fatigués mhm. de mhm. euh, des waa dëkk yooyu donc mooy ay daanu kii fii jàpp ay tànk na fii dugg na fii jusqu'à aller aux séries de penalty. Mm -hmm. mais malgré tout sur le banc déjà. Mm -hmm. ça il faut, il faut aussi parler de la gestion du banc aussi. Aliou mhm. a dû bien gérer ce banc là. Mhm. parce qu'il y a un moment donné même sur le penalty de Sadio la première minute il a dit mhm. au gars hey, Ouais. On est qu'à 3 minutes de jeu ou 6 minutes de jeu, la calme. Mmh, mmh. Voilà, donc il a bien géré, géré le banc, non seulement, mais aussi bien géré aussi les remplaçants qui étaient sur le banc. Mmh. C'était vraiment une cohésion de groupe qui a fait que vraiment cette Coupe d'Afrique là a été remportée mais les gamins ils le méritent vraiment largement. présence anciens yi nga xam ne gisoon nañ leen ñu sóobu ci bu baax. waaw waaw anciens footballeurs yi anciens internationaux yi. exactement mais c'est ça qu'il faut. c'est ça mm. qu'il faut. Mm-hmm. maintenant maintenant maintenant je crois que les Sénégalais ils ont compris que. Euh, que euh, pour le pour le football là il va falloir que qu'on y mette les anciens dedans. il va mm-hmm. falloir que les anciens y participent. que ñu mun a waxtaan ak booy mun a cere booy wala waxtaan ak ñoom ak affaire yu ci fànn yu bare bare on a mis gis nañ fa Alassane Ndour gis nañ fa pas mal d'anciens yoo xam ne ce sont les gens de 2000 Boubacar Sarr Lokot il était là-bas Medoun Mar de notre génération à nous avant suñu génération ñoom grand yëpp dañu woon foofu mhm. pour essayer vraiment de de de de de de de de gunge booy yi bon ce qui a fait que vraiment bon li avec l'union des cœurs comme li wax Sénégal saa yu ñu booloo rek. Mhm. am dara quoi mhm. bon cette fois ci booloo nañu et puis yàlla def na boo jël nañ coupe d'Afrique nous sommes tous de ça. d'accord une grande fierté. bëggoon nañoo ñëw ci euh, prime yi ak ni muy demee mais est-ce que duñu ko leb ba lundi bii di ñëw comme <laughs> dañ koy jeexal fii mais du fi yem ndax temps bi daf ñoo xoj carrément te am na yeneen émission yu topp donc dañuy joxe rek di daje insha allah rabbi waaw mais da nga may may rek. waaw dafa am lu ma bëgg a kay ñu may ma ko rek. Mhm. mooy que gis nga euh, damay wax encore une fois dama koy ñaan. parce que site internet yi yi nga xam ne. varié samay samay samay confrère ñoo fa nekk. Mhm. man du toog di ŋaññi sama confrère. non mais sincèrement euh, bu ñuy jëlee interview nit. Mhm. ah loolu jàng nañ ko ñoom ci école journalisme. Mhm. nañu teg intégral wu euh, maanaam. émission bi yëpp voilà. parce que c'est pas joli nga jël di nga dagg benn benn affaire nga teg ko placardé ko. yaa ngi boole ñu ci ak ay sénégalais. Mhm. dégg nga euh, dégg nga parce que euh, euh, daf ci am benn kii boo xam ne mu ngi sukale foo xam ne damay ne Sénégal du mës a jël coupe bi déedéet dama ne Sénégal fédération. Mhm. tant que ñu ngi toog di amel ay nit àq di tooñ. Mhm. duñu Sénégal du mës jël. loolu bu ñu ko génne lépp moo gën. waaw mais ñuy génne loolu dama koy kii rek ñoo bokk liggéey bi. sincèrement ça fait mal. Mhm. dégg nga mais voilà mu ngi. te dama lay dama lay damay yokk ci li nga wax da yàgg nga koo wax kë suñu boolee xol yi boole lépp mën nañoo indi dara te ni nga ko waxee noonu ci biir vidéo bi ak ñoom la ñu dagg ak la indi amaana ñi la yàgg seetaan xam nañ ne du loolu exactement moom nga wax wax ji la ñu déformé moo tax ñu indi loolu mais comme sénégalais yi moom coach bàyyiwuñu la fi bàyyiwuñu fi keneen ak keneen noonu la ñu koy noonu la ñu koy defee di leen ñaan rek comme ni nga ko waxee di ñaan ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk liggéey bi nañuy xoolaat liggéey bi muy gën a rafet ci nu mu gën a amee rek bu ko defee sénégalais ñi ko xam ne ñoom lañ koy proposé ñoom tam ñu mën koo accueillir ci jàmm ak salaam donc foofu la ñuy jaaree rek di leen tàggu di leen jox dig daje incha allahu rabbi lundi bii di ñëw ci kanam tuuti kii di Mass Mboup ak équipe équipe li ci dëkk bi dinañ ñëw incha allahu rabbi daal di faram fàccee thème bu am importance bala ñuy dem ñuy remercier bu baax a baax ñi jàppoon ci euh, émission bi ba mu mën a yemb Pape Modou ak Balde ci caméra bi waaye itam ci technique bi René Charles Fall ak équipe ñu ngi leen di gërëm ku ci mel ni mbaalo ak am di di gërëm téléspectateurs yi nga xam ne ñoo toogoon di ñu seetaan di leen jox dig daje incha allah lundi jërë ngeen jëf di gërëm Alassane bu baax a baax Alassane sama xaritu jëkkër maa ngi lay gërëm bu baax <laughs>